Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de choisir la 2STV. Merci de choisir nos programmes. Nous sommes heureuses de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les programmes de votre chaîne de télévision préférée. Nous avons le plaisir de recevoir autour de nous des femmes, des femmes de différents secteurs du Sénégal qui s'activent toutes pour l'autonomisation de la femme. Et quand on parle d'autonomisation, des questions tournent autour de tout cela. Cette année, pour la journée du 8 mars, nous avons choisi en partenariat avec Debo Sénégal de parler des femmes et des réseaux. Le pouvoir des femmes en réseau. Pourquoi cette thématique? Parce qu'il s'agit de faire comprendre à toutes ces femmes qui nous regardent un peu partout et à toutes ces femmes africaines qu'il s'agit de faire en sorte que nous puissions être ensemble pour pouvoir mener les combats qui concernent les femmes. Et je suis très contente d'avoir autour de moi aujourd'hui de ces femmes qui se font remarquer dans différents domaines. Et je commencerai par introduire Mounina Aïdakan. Bienvenue. Merci d'avoir choisi la 2STV pour euh, discuter de ce thème et échanger avec toutes ces femmes dans le cadre du mars. Bienvenue. Euh, je vous remercie de l'invitation. Euh, euh, mais avant tout, si je puis m'exprimer peut-être en wolof, ñu ngi nuyu jigéenu Sénégal yëpp. parce que émission bi li ko waral mooy 8 mars xam nañ ne 8 mars mooy bés bu ñuy jagleel jigéen ñi euh, ci huit mars bii nag li ñu bëgg a waxtaan ak yéen tey. mooy naka la jigéen ñi bu ñu booloo mën nañu yëngal lu bëri surtout tey jii nga xam ne euh, nii naa jigéen ñi am nañu uti bu rëy bu nekk ci seen disposition mooy outil internet bi bu ñu waxee outil internet yóbbaale na internet yóbbu réseau sociaux yi li ñuy wax tey réseau sociaux mooy Facebook bi WhatsApp yi Viber yeeg yooyu yëpp mm-hmm. ay réseaux sociaux lañu mm-hmm. donc tey loolu ñu fas yéene waxtaan ak yéen pour wane ne que ñu ngi jëm ci journée 8 mars euh, sargal jigéen ñëpp et puis surtout mm-hmm. wane ne jigéen ñi mun nañ yëngal lu bëri fii ci dëkk bi dinañ ñëw ci loolu jërëjëf mu ni na dinañu ñëw ci loolu ndax mën nañu yëngal lu bëri daañu ko wane si kanam incha allah kontaan nañu recevoir ki nga xamante ne mooy madame Rufina Dabo dafa am yéen loo xamante ne ci ngeen di yëngatu muy science ñu ngi lay nuyu di la dalal parce que bu ñu waxee femme scientifique wax ingénieur bëriwul ci Sénégal ñu am mbégte dalal la di la remercier si ni nga nangoo ñëw participer ci émission bi bienvenue madame Sarr merci, Madame euh, Nina Pendafay. Un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui parce que je représente non seulement les femmes scientifiques et ingénieurs, mais aussi les femmes de tous les horizons, de toutes les conditions et les femmes d'Afrique et du monde. C'est une lourde tâche que de parler à la place d'autres femmes. Mm -hmm. C'est aussi une joie de porter la voix de ces femmes. C'est vrai, nous sommes des femmes qui avons un parcours scientifique, mais même les femmes qui sont dans leur ménage, mm -hmm. au foyer plutôt, devrais-je dire, sont aussi des femmes scientifiques. Parfaitement. Le simple fait de faire cuire du, du mm -hmm. riz c'est une science. Mm -hmm. Le simple fait de faire du soupe kanja, c'est une science. Mm-hmm. Donc je dis que toutes les femmes sont des scientifiques. Merci pour l'invitation. Très bien. Merci beaucoup, Madame Rufina Dabo. Je rappelle qu'elle est directrice pour l'Afrique du réseau international des femmes scientifiques et ingénieures. Madame Aïda Sougou, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, adjointe au maire de Pékin-Ouest, bienvenue ñu ngi lay nuyu madame Sougou. Mm, merci Nina merci de l'invitation euh, vraiment nous sommes très heureuses de venir partager ce plateau avec vous avec euh, l'ensemble des femmes du monde et particulièrement du Sénégal vraiment c'est un honneur de venir ici assister apprendre avec l'expérience des femmes je sais que ce sera un plateau très riche allah di ci wax ne rek ñu ngi ci gërëm jigéen ñëpp di ci sargaal ñëpp ci 8 mars bi nga xam ne moom nga ñu invité tey ñu ñëw teew ci en tant que femme euh, élue local mais aussi en tant que femme politique donc ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax a baax merci. merci beaucoup merci beaucoup merci madame Sougou avant de démarrer ni ñu tàmbalee sànq gis ngeen ko dañuy introduire Astou Dione mi nga xam ne moo ñu defal présentation. li nga xamante ne moom mooy thème bi ñuy développé les femmes et les réseaux. Oui, elles ont le pouvoir, mais comment font-elles pour détenir un pouvoir qui peut peser sur la balance et faire réagir les décideurs en fonction de leurs préoccupations du moment? Les regroupements de femmes connus et reconnus ont très souvent agi dans le sens de rendre les femmes autonomes, indépendantes et entreprenantes. en mettant en place des embouteillages, des regroupements de femmes encadrés avec un organigramme bien défini. Les femmes ont trouvé le moyen de parvenir à concrétiser l'idée de leur autonomisation longtemps freinée et bloquée. Ces embouteillages ont favorisé la connaissance, la coopération et tout ce qui est connexion et coalition, donc disons alors réseau levier de pouvoir. ces regroupements intègrent également le social, l'éducation, au-delà des activités génératrices de revenus. À l'ère du numérique et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, disons que l'avènement des médias a tout fait basculer. L'époque de l'arbre à palabres est pratiquement révolue ou juste privilégiée par les anciens. Nous sommes à l'époque du numérique et les femmes n'ont pas lâché prise. Elles sont connectées et en réseau. Elles se sont adaptées aux antiques sur les réseaux dits sociaux en particulier. Les femmes répondent présentes de différentes façons. À la place de l'arbre à palabres, ce sont des murs et des comptes Facebook. À la place des échanges réels, ce sont des échanges virtuels qui, plus tard, donnent naissance à des regroupements virtuels appui à des actions purement réelles. Les motailles gardent toujours leur sens mais révolutionnent leur cadre. De nos jours, plusieurs groupes émergent sur les réseaux sociaux avec des petites astuces et privilèges que l'on ne pensait pas pouvoir se procurer autrefois avec les motailles. Sur Facebook, les noms diffèrent suivant le credo du groupe Sama Jëkkër Sama l'opportunité de poster son histoire et des témoignages tout en gardant l'anonymat. Ladies Club, qui au départ n'était qu'un cercle des journalistes aux journalistes, est devenu l'un des groupements de femmes les plus connus sur les réseaux sociaux, entre autres. Elles y retrouvent la rapidité et la réactivité comparée au motail. Ici, une simple publication en message ou en commentaire, partout où que l'on se trouve à travers le monde, peut faire l'objet d'une très grande attention. Peu importe qui on est et quelle est notre préoccupation. 10, 100, puis des milliers de femmes internautes ont réussi aujourd'hui à effectuer la transition de réel à virtuel tout en étant on ne peut plus structuré avec des administratrices pour chaque cercle dans le but de modérer les publications, les commentaires en amont, le contenu La vente s'y développe, des témoignages les plus intimes s'y partagent, le social s'y mène, des problèmes y sont résolus, des larmes y sont séchées. À vrai dire, des femmes en ont fait leur second foyer et y gèrent bien leur vie commune. Après le génie de Bill Gates, c'est le talent des femmes, Internet puis les idées belles et perspicaces des dames Elles ont encore prouvé, démontré leur polyvalence, surtout en matière de créativité et d'imagination. Tout dans l'harmonie et la positivité. Les femmes en réseau ont pouvoir silencieux qui se dit tout haut. Nous vous remercions Astou, merci beaucoup pour euh, cette présentation qui nous montre un peu mais mu ne na dañuy ñëwaat rekk ci li nga xamante ne moom la wax mais bëgg naa tuuti bala ñuy wax ci réseau yi astu dafa ne ci élément bi ne avant ñoo tàmbale xam nga wax nga internet ak ñoom whatsapp ak yooyu mais dafa am fu jigéen ñi tàmbale te ba boobu ba léegi loolu mi ngi am <laughs> les femmes et les wante ba ñuy njëkkee mbootaay la ñuy njëkkee ba ñu yegg si fii tey ñuy wax internet Facebook ak ñoom yeneen ya ca topp mm-hmm. ñu bëgg la laaj bu ñu doon tey xoolaat mbir mi ni mu ko jàngatee ndax tëb tëb rek jóge ci mbootaay yi dugg ci internet yi dafay laaj jigéen ñi continuer toujours di gisee parce que internet bi du yàq physique bi tamit ñu mën a xool nan la ñu mën a def ndax lépp lu ñu mën ti def tamit ci mbootaay li la ju jóge woon lan nga ñu mën a sàndil ci li nga xamante ne moom mooy tàmbali bi euh, waaw mi na euh, di as wax am na fayda torop Euh, ni nga waxee ci mbootaay la ñu jëkkee mm-hmm. mbootaay yi nga xam ne euh, ci suñu maam yi suñu yaay yi ba tey mm-hmm. mbootaay yi nga xam ne tax na jigéen ñi di booloo mm-hmm. di def ay tontin di ci faj seen soxla di ci liggéey def si ay commerce yu am fayda mbootaay yi tax jigéen ñi di booloo di aji màkk mbootaay yi nga xam ne day tax jigéen ñi di dajale ci commerce di jënd commerce bu ndaw sax mun naa wax même ci marché yi dañuy dañuy gis jigéen ñi dajaloo bu kenn tegee dem jënd marchandise ci marché bi jënd ay légumes jënd jën ñëw jaay bu subaa keneen teggi def noonu donc mbootaay yàgg nañ ci Sénégal yàgg nañu am njëriñ ci Sénégal boo gisee tey ñu wax wuti euh, informatique bi lu muy jëriñ jigéen ñi mun na leen yombalal ak gaawalal lu bëri parce que loolu la loolu la wuti internet di jëriñ foo xam ne fii par exemple bu ñu nee woon jigéen ñi tey ñëw leen indi seeni nat yow nga xëy suba. Mhm. nga dem bugguma xëy na lim walla wax yenn tur yi balaa ñuy naan publicité la. Mhm. nga yónni sa xaalis sa natt. nga yónni ko ci euh, moyen de transfert yi ñu am. Mhm. Euh, ñu jot ko ci saa si. c'est vrai que xëy nañ nit ñi duñu ñu gisee peut-être loolu dina manqué tuuti mais am na ñoo xam ne yenn saa yi duñ doon jóge fu sori. dëgg la war a ñëw ñu daje di di di di di joxe seen nat. Mhm. di tiire. Mhm. mais tey jii am na ñoo xam ne ñi mun nañ toog fi ñu toog bokk ci yëf yi yónnee seen i nat. Mhm. seen liggéey mun a continuer. dëgg la tey jii outil informatique bi loolu lay jëriñ dafay gaawal mbir mi. dafay gaawal mbir mi. voilà très bien boo waxee outil informatique bi dafay gaawal mbir bi. dafa may indi ma laaj madame Dabo euh, yow mi nga xamante ne da nga jiite réseau boo xam ne femme scientifique yi la ni nga introduire sànq da nga ne jigéen bi nekk ci kër gi sax nekk femme au fois yi moom scientifique la. ci lu wër li mu wax sànq ne dafay gaawal mbir yi réseau yi yéen ñi nga xam ne seen bos dafa physique bala ngeen bi yegg foofu lan mooy solos. jigéen ñi war a mën a booloo nekk ci loolu ba mën a indi lii nga xam ne mooy gaawal mbiru njaay ak jënd ak yeneen activité yu ñuy dox nan la ko scientifique bi nga nekk di jàngatee. Euh, man yaakaar naa ne. Mhm. ñi nga xamante ne ñu ngi ci mbootaay yu njëkk yi ba léegi. parce que loolu du fu mus a jóge. cosaan la. dëgg la xam nga àddina. Euh, dafa am ay secteurs yu bëri. Mm-hmm. am na secteur informel am na yeneen secteur mm-hmm. donc ñi nga xamante ni ñu ngi ci marché di dinañu continuer nekk ci marché. dëgg la jamono day dox ba léegi euh, xarala bu ànd ak jamono bu ñuy wax uti informatique. Mm-hmm. loolu def ñu dab. def ñu dab ba nga xamante ni ñun nii ci suñu réseau bi. léeg-léeg dañuy def réunion te kenn du bouger fi nga toog dëgg am am déet madame mu ni na la daanu def réunion mhm. kii day nekk Allemagne kii nekk États-Unis kee nekk Australie mhm. dinañu def suñu réunion ba tënk yëpp ba def PV mhm. te kenn du bouger mètre fi nga toog loolu lu baax la mais tamit ci beneen fànn Facebook ak yeneen am na yàqu-yàqu mm-hmm. yu mu indi si suñu jamono mm-hmm. wante bala ñu yegg si yàqu-yàqu yi waaw parce que xam nga dañu bëgg tey mu positif ah mm-hmm. donc du ñu indi yàqu-yàqu yi ni ñuy xaar ñu tegagum ko ñu tegagum noonu waaw wax nañu réseau mu ni na introduire na wax li xarala yu bees yi mën a indil jigéen ñi ci jamono ji ñu toll mais tamit tàmbali nañu ci mbootaay yeeg yi ñu daan def defar tonti nag yooyu am na yoo xam ne du fi mos sa jóge wax nañu ko yéen politique naka ngeen gisee seen bopp tey ci liggéey bi ngeen di def ak activité yi ngeen di mëne ak li nga xam ne mooy xaralalu yu bees yi est-ce que lu ngeen intégré gum la wala yéen politique yi yéen vous êtes encore en retard yéen a ngi ci système ba ancien ba xale yi naan euh, la vieille époque la vieille époque <laughs> jërëjëf Nina xam nga man mhm. pour gën a présenter sama bopp defe naa ne lii ñuy wax ci réseaux sociaux yi. waaw bari na lu ma ci xam. parce que nag defe naa ne sama genn wàllu dund yëpp dama ko jaa dama ko tukki. donc man Amérique laa dëkkoon. kon xam naa luy conférence call. très bien conférence call boobu nga xam ne yàlla dogal na ni ñun politique. defe naa ne bokk nañ ci ñi nga xam ne njëkk nañ ko instruire sax booy seet. Mhm. parce dama lay jox benn cas. bi nga xam ne tey fi ma bokk partie bi ma bokk. di nga xam ne tey ci lay politique. di jàppale président son excellence président Macky Sall nekk nañu États-Unis en tant que présidente des États-Unis présidente des femmes. Mhm. wala présidente des femmes des États-Unis. Mhm. nga xam ne dama doon coordonner cinquante états yi. te chaque jour comme ni ko madame waxee chaque jour maa ngi déggante ak ñoom. da ngay teg sa cin di togg. Mhm. nekk ci sa conférence call. di organiser. ci say meeting di organiser sa ay réunion di jot sa ay procès verbal loo xam ne tey am na dëkk yoo xam ne tey ci États-Unis mhm. su ma fa demalul sama bopp boo ma laajoon kuy responsable bi ma ni la diw la mhm. diw la tudd nii la mel te mosuma gis jëmmam mhm. dafay signifier ni kon ñun jiitu woon nañu lii te li ma lay wax c'est en 2009 mm -hmm. en 2010 xam nga loolu en 2011 ñu ngi ci woon di liggéey ci domaine boobu mais comme li ñuy wax léegi nii rek c'est important ba tey loolu ñun bàyyiwuñ ko parce maa ngi fii Sénégal mais toujours maa ngi en coordination avec les les femmes des États-Unis ci bu ñu amee seen réunion dugal ma ci biir mhm. maa ngi tëdd sama kër Sénégal tëdd sama biir kër di togg sama reer wala may julli waxtu bu ma nekk mhm. te teewul maa ngi ci branchement boo xam ne bu ñu waxee dinaa leen tontu su ma waxee ñu tontu ma kon donc loolu la ñuy wax ne lu positif la mhm. parce que actuellement loolu yëpp comme ni ko ma madame Kane waxee léegi ne dafay tax nu ñu gën a réduire parce que jot warul am nit ñi amuñu jot kon donc ñu jëlee arme boobu wala ñu jël euh, xarala boobu mhm. di ko utiliser ça signifie que ni kon ñun ñëpp jëf defe naa ne dañu bëgg a jëmale adduna euh, ci kanam très bien te loolu loolu ñun moom la ñuy dund mhm. ci booy xool même actuellement sa billet avion si lu mu mën a doon yaa ngi jënd sa ay billet te doo gis ki la jaay billet bi mhm. yaa ngi def say réservation hôtel doo ko xam ki la ko defal donc loolu yëpp kon li nga waxoon léegi ne lu positif la man jusqu'à ba fi may waxee yow maa ngi jàpp ne li positif sax moo ëpp li négatif très ñu nee jigéen ñi ak xarala yu bees yi wax nañu réseau mais dañuy ñëwaat mu ne na dama la bëgg a laaj bii laaj les femmes et les réseaux dañu am loo xamante ne bu ñu ko defee daf leen di dooleel ci li ñuy wax naka la jigéen ñi bu ñu lëkkaloowee nekk ci réseau yi nu ñu mën a def ba loolu mën leen dooleel ci loolu ci sama gis-gis mhm. am nañ tey euh, wuti bu mel ni Facebook. waaw boo xam ne bii macha allah mun nañ ci waxtaan ak suñu mbokk Oumy Ndour mu ngi fii ma koy gis. Mhm. moom mi nga xam ne dafa créer euh, ci Facebook. Mhm. Ladies Club dégg nañ télé yëpp di ko wax. ci temps yi passé ndax def nañ lu am solo duñu xëy ñu gis ne jigéen ñi amoon cancer ñu ngi dee benn par benn. ndax malheureusement appareil radiothérapie bi dafa yàqu. dëgg la ñu jël initiative seen bopp. ne du ñuy def pétition. Mhm. pour que appareil bii ñu wut ko. et puis ci biir pétition boobu ñu foofu du ñu ne du ñuy cotiser. ku mhm. nekk dafay joxe dara. Mhm. pour que ñu mun dimbale jigéen ñi war a faju. ginnaaw bi état Sénégal waxee léegi du ñuy évacuer maladie Maroc. dëgg la ñoom lay dis ku nekk génne na. loo mën defe naa. Mhm. mais mun nañ ko laajaat ummi mu ngi fi. dinañ ko laaj voilà mhm. donc euh, mhm. ku nekk génnee li nga mën. ñu dajale di ko dimbalee malade yi. donc loolu rek lu am faydal la. te bu ñu xoolee Ladies la boobu dix huit mille membres ñu ngi ci xam nga ne loolu tuutiwul. voilà très bien bu nee dix huit dix huit mille membres ummi maa ngi lay nuyu di la dalal. di la féliciter ak di la remercier ci liggéey bi ngeen def hmm. ak li ngeen taxawal ndax xam nga kooku dafay laaj tamit ñu taxaw tuuti ci bi ngeen di tàmbali lan moo indi ngeen créer les dix clubs hmm. merci Nina ci euh, dalal bi ñu dalal euh, li waral Ladies Club juddu mooy Koddu hmm. euh, Bigué sama doomu ndey Koddu maam Koddu Dia madame Cissé moo moo xalaatoon ne war nañoo gën a mën a tirer profit ci internet bi ak réseaux sociaux yi parce que seetlu nañ ne jigéen ñu bëri macha allah Sénégal daanaka presque même ba si àll àll bi sax. Mhm. gars yi dañu nekk si réseau sociaux yi parce que connexion yi léegi baax na partout. waaw donc ñi jàng ak ñi jàngul. Mhm. boo duggee sunu kër yi même sunu jànq yi ñuy jàppale ci liggéey bi sax. nga xam ne demuñu école ñu ngi ñoo la gën a xam ni Facebook di doxe mhm. mais dañu taxaw seetlu ne aussi liñ ciy utiliser maanaam ay futilité la maanaam bëriwul solo tey def naa coiffure bu bees xaaral ma foto bu def ko ah kumba toll fee ne la ah toj nga fi kenn la ah rafet nga loolu rek lañ ciy def wala ah waaye yow gis nga diw li mu def ah li ko jëkkëram def jëwante ñu toog seetlu ne loolu waaw amul njëriñ ñu ne kon il faut ñu xool parce bokk nañ ci ay groupes yu bëri. Mhm. ci biir euh, Facebook yoo xam ne euh, mun nañ ne njëriñ li barewul. Mhm. lu dul waxtaan ak loo xam ne du ñu jëmale kanam. Mhm. donc code bi mu defee seetlu boobu ñu waxtaan si mu lancé club bi Ladies Club Sénégal ñu ne nag. Euh, club boo xamante ne réseau réseau professionnel lay doon. waaw maanaam dafay dafa war a am njëriñ loo xam ne ku nekk ci wàll bi ngay yëngatu war nga cee mën a gis sa bopp. dëgg la. au début ñu bëri ne woon nañu ne yéen seen mbir mi xam naa mbiru intellectuel la ñu ne leen déedéet parce que boo xoolee ñi si ëpp sax mhm. daanaka amuñu niveau universitaire mhm. dix-huit mille membres lañ ñu ngi Sénégal ñu ngi un peu partout semaine dernière j'ai découvert que am nañ sax ay membres en Australie mhm. donc mun nañ ne on est sur les cinq continents dëgg la mais est-ce que ay sénégalaises kese la wala dafa rax yeneen nationalité. am nañ am nañ ay ñenn ñenn ñoo xam ne duñu ay sénégalaise mais mhm. taxuñu koo bëri. Ah. te ñoo ñu lu tax ñu bokk ci club bi mooy dañu am ay connexion ak Sénégal. soit dañ fi sëy si. Ah. soit dañ fi liggéey si. Euh, soit ñu am ay xarit Sénégal nga xam ne euh, intégré nañu bu baax les réalité sociale sénégalaises ba mhm. loolu boole leen ci groupe bi te ñi ñi ci dugal ñu bëri ay ñu active lañ léegi réseau boobu aussi euh, bi ñu ko tàmbalee semaine ñu ko tàmbalee rek mhm. am amoon nañ dix mille membres parce que ñu bëri wax dëgg na yàlla mhm. gisoon nañ ci seen bopp xam ah. ne caaxaan taxuñu jóg ba dañ ko mujjoon a bloqué pendant six mois defatuñu adhésion. Mm. mais après ñiy fëgg doon bari torop torop torop torop ñu daal di koy ubbi. ubbi ko ba léegi mat nañ 18000 mais teegul ñu ngi ko bloqué waat. da ngeen bloqué waat dañ parce que ëpp na 6000 personnes yoo xam ne ñu ngi bëgg a. dugg très bien très bien. parce que ñun suñu combat du mm-hmm. rek ñu ne waaw ñun ñooy réseau bi am 18000 membres wala bi am 25000 membres. waaw dañu bëgg am un réseau qualitatif. boo xam ne. Mm-hmm. Euh, kii jaay gerte. waaw wan nañu fulla ak fayda ci ni muy jaaye gerte ba. man ci faj doomam man ci mën man mën ci yóbbu doomam école man ci cotiser si natt bi ci koñ bi ak yooyu euh, boole nañ ci itam ñi nga xam ne ay femmes am nañ sunu benn membre boo xam ne elle est conductrice de de réacteurs nucléaires en France Très bien. donc c'est pour wan la un peu la différence, différence de profil que ñëpp a ngi ci biir ba pare dañuy dañu dañu seetlu ne aussi jigéen ñi ñu bëri dañu am ay initiatives d'entrepreneuriat mm mais xamuñu nuñ koy valoriser. waaw maanaam. loolu loolu dinañ si. ñëwaat dinañ si dellu si waat si dellu waat. am na loo xamante ne sumb ngeen ko. Hmm. ba mu am lu mu jur. dëgg la. sumb boobu ba mu am lu mu jur dafay indi ma laaj la laaj bi ma laaj mu ni na sànq. Hmm. lan mooy tey solo su ngeen nekk noonu ci réseau nekk membre Ladies Club dara xew ñu ne kat ñun il faut ñu jóg def dara. du ñu xaar état duñu xaar ma sàmba duñu xaar ma demba hmm. tey bi ngeen ko defee ba pare lan ngeen si gis hmm. ndax doole ak solos booloo bi gis ngeen njëriñ bi ak nan la feeñee suñu benn membre bu tudd sa Gueye Jaxate nekk hmm. France moom ca France nga mu nekk maanaam réseaux sociaux yi tax na ba dara ump ko Sénégal moom moo njëkk a def seetlu ne ah appareil radiothérapie bi na depuis fin décembre te bu leen fàtte ne ñaari cancer yi njëkk Sénégal ay cancer yuy laal jigéen la. Mhm. mooy cancer du col de l'utérus mhm. ak cancer du sein. kon ma appareil bi tey bu paanee. Mhm. ñi bokk na ci ñi muy gën a lor wala ñi muy gën a gàllankoor. ñun jigéen la mu def seetlu commencé alerte ñu comme euh, ñun ak beaucoup de membres ci club bi ñu ngi dans les dans les médias. effectivement on a mené nos investigations xam na li mu wax dëgg la. moom mu lancé pétition bi. pétition bi mu ngi ko lancé benn euh, samedi ci suba. mais samedi beeg dimanche bi déjà sa a commencé à bouger donte du ay journée de travail. ba euh, wax dëgg na yàlla kilifa réew mi yëg nañ ko. Hmm. ba ca lundi ba ba ñu xëyee la ñu génnee communiqué si ngoon woo ñu nañu ah, li ngeen di jàmbat de yëg nañ ko. Hmm. génnee nañ ci communiqué li yëg lii la def. Hmm. ñu ne ñun nag waxuñu nekk jigéen ñoo xam ne dañuy toog rek di xuloo ak taas ak dinaan lii doxul bu ñu nee comme def nañ constat bi ñu ne lii doxul lan lañ ciy teg ñun. yàgg nañ dégg suñu kilifa yi muy président muy ñeneen ñu ne nguur gi motalewul donte ñu ngi def li ñu mën mhm. donc ñun tam war nañoo am lu ñu mën a def ñu ne comme demee na noonu te xam nañ ne traitement bi dafa cher malade war nañ leen évacuer mhm. nañu dajale ku nekk loo am dañu ne woon ku nekk junni boo amee nga joxe junni moo tax ñu tuddee campagne bi campagne billet vert mais dañu ne aussi am na ñoo xam ne peut-être motalewuñ loolu te am nañ yéen na nga joxe. ñu jaarale ko si moyen de transfert d'argent yi ba pare ñëpp a joxe vraiment si internet bi am nañ am nañ compte Litchi. Mhm. ñi nekk Canada joxe ñi nekk France Italie. ñëpp joxe mu nekk adhésion massive boo xam ne ni finalement ñun daf ñu ëpp doole. te le fait que ñun ñu lancé alerte bi. tax na mm-hmm. ba yeneen groupe aussi formé wu. waaw boo xoolee lancé ñoom it seen i ay pétitions. très bien que ñun aussi loolu moo di woon kii bi ñun on est un groupe boo xam ne c'est fermé tey boo duggee ci Facebook di ñu wër. boo mm-hmm. bokkulee ci membre yi doo ñu gis. Mm-hmm. mais le fait que ñun ñu wax ko ba pare ñi bokk ci club bi ku nekk sa kër nga toog wax ko. fexe ba yeneen groupe juddu góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ñi ñëpp jàpp ci. Euh, vraiment mu am mu nekk initiative boo xam ne ni mun nañ ne initiative citoyenne la bu judd ci réseau yi te jigéen ñi ñoo ko sabab tey parce que yaakaar naa ne ñun jigéen ñi bu ñu takkuwul woon jóg ne machine boobu panne na mhm. peut-être que dañuy dañuy dañuy toog rek ba machine yu bees yi dikk mais mhm. ñu bëri duñ ko yëg ñi nga xam ne amuñu ko am cancer seen famille duñ ko yëg mhm. mais la fait jigéen ñi loolu moo lay won pouvoir bi jigéen ñi am la fait jigéen ñi takku ne ah lii moom il faut ñu wax si tax na ba vraiment mbir ñi mbir mbir mi bougé mhm. te ci loolu sax ma doon bëgg a leeral ne ñun nekk ñu di politique nekk ñu syndicat waaw voilà parce que boo parce que boo xoolee dafa am solo nga leeral voilà mhm. parce que boo xoolee am nañ ay am yu yu am nañ ay députés am nañ ay anciens ministres si si si si groupe bi mhm. te bokkuñu ay parti politique voilà donc jërëjëf euh, Oumy dinañu tuuti parce que dinañu la laaj tamit lëkkaloo bi ci réseau yi physiquement après nu ñu mën a def ba mbir yi yokk parce que am na yoo xam ne dina si soxe mais comme ñu ngi ci liggéey boo xamante ne da ngay seet étape par étape nan ngay évaluer dina ñu ñëwaat après ci pour que doole bi gën a yokk foofu inchallah surtout ci li nga xamante ne moom moo jëmoon ci cas pratique bi nga xam ne wane na ne lëkkaloo bi ak nekk ci réseau yi am na solo mais dama lay bàyyi rek sama rakk bi nekk si sa wet maman moom lauréate Linguère Digital Challenge Sonatel bu 2016 nga xamante ne moom tamit dafa yëngatu ci mbirum euh, li nga xamante ne moom mooy liggéeyu suuf bi ni nañ ko wax agriculture mama dama bëgg rek nga nga jël kàddu bi bu ko defee xam nga bi ñuy wax digital wax nañu sànq li nga xam ne mooy solos réseau yi mais dama la bëgg a laaj rek yow si liggéey bi ngay liggéey ginnaaw boo ñu tojalee gën ñu tojal yax bi ci Linguère Digital ñu gën a mën a xam lan la pour ñi nga xam ne soxna yi ñuy seetaan yépp nga wax ñu solo bi nga xamante ne moom la am tey ñu liggéey ci xarala yu bees yi lan mooy solo si merci beaucoup madame Nina Penda Faye ci mhm. invitation bi may souhaiter d'abord bon fête des femmes à toutes les Linguères qui sont ici présentes. Mhm. ak aussi Linguères yi nekk ci petit écran bi aussi di ñu seetaan. déjà c'est un honneur pour moi tey jii ma bokk ci jotaay bii nii en tant que xale. ak aussi en tant que jigéen. Mhm. donc man ci côté agriculture laay yëngu. li nga xamante ne ni mooy liggéeyu suuf comme ni ñu koy waxee. Mhm. lépp lu dañoo seetlu ne jigéen ñi ci yëngu ni du ma ne sax amul. am na waaye di ko def comme de façon scientifique bariwul woon. boo waxee yenn domaines yi comme lu ci jëm agronomie mécanique wala ay génie civil d'habitude ñuy wax ne ay métiers yoo xam ne ay métiers góor lañ. Mhm. ñun ñu ne déedéet 2017 lañ nekk loolu jeex na. lu xamante ne ni góor mën na ko te muy laaj xel. jigéen war na ko mën. très parce que xel bi yaakaar naa ne amul xel bu góor ak xel bu jigéen. xel xel la rek xel la rek du doole xel la. lépp yàlla di baaxee. <laughs> donc looloo tax ma dugg ci domaine agriculture bi. Mhm. mais aussi bi ma ci duggee ba am ci sama diplôme. à mhm. l'université Gaston Berger. Mhm. ma ne il faut ma taxawal lenn loo xamante ne damay day tax. jigéen ñi nekk ci ginnaaw te bëggoon ko def te ñemewuñu. osi ci dugg. ma daal di taxawal benn entreprise. entreprise boo xamante ne nii Dictaf Corporation la tudd di liggéey di bay di bay di jaay mais aussi di jàppale ñi nga xamante ne dañoo bëgg a dugg ci agriculture bi te ñemewuñu parce que xamuñu mm-hmm. ñu dem accompagner leen wan leen technique yi jox leen ay conseil wan leen suuf su baax si wan leen climat yu baax yi ba ñoom aussi ñu am fitu investir si mais ci biir liggéey boobu noonu dafa am lu ma ci seetlu woon mm-hmm. muy sama mbokku baykat yi ñi xam te dañoo nekk ci zone yu sori yi. Mhm. léeg-léeg dañuy toog année entière du ñu bay nax lan semence agricole bi dañuy dafay jafe ci ñoom. Ah. pour ñu jot ci. looloo tax nag ma ne ah lii de il faut mu utaat ci beneen solution. Mhm. parce que tamit euh, comme ni ma koy waxee lu bari gas université laa jaar mais ñoom ñoo ma ëppal ci liñ ma formé. xam-xam xam-xam bi ci ñoom la ëppee. donc ñoom bokk na ci ñi nga xamante ne tey jii su ma toogee fii di wax ñoom ci lañ bokk ma ne il faut kon ma créer beneen structure. boo xamante leen di yombal accès aux semence agricole moo tax ma créé structure bu tudd Awdi Awdi mhm. ci pulaar di signifier semence agricole mhm. Awdi boobu nag da di benn jumtuwaayu xarale boo xamante ne ni plateforme la mhm. boo xamante day permettre képp koo xamante ne baykat nga nga ak loo mënti sori ci Sénégal ak ci Afrique wërngal képp nga mën a jënd semence agricole boo xamante ne nii dañ la ko tester ba mu leer na la ne lii boo ko defee di nga ci am rendement bu baax. parce que tey jii nekkul que ne dangay ngay jaay rek dañuy jël sa produit def ko ci aw di déedéet. da ngay jaay dañuy jël li ngay jaay. ñu testé ko ba xam ndax yow li ngay jaay nii méngoo na ak li nga xamante ne nii euh, am na qualité. lu am qualité la. lu xam te ne baykat bi bu koy jëfandikoo dina ci gis euh, njariñ. ñu soog ko jaay tey yemul foofu. Awdi tey jii pour wax toujours ci affaire numérique. Mhm. Awdi daf lay permettre fi nga toog ngay toog internet. aajewul dara. dafa am lu ñuy oowee technologie SSD. waaw téléphone bi ak lu mu mënti euh, néew doole néew doole ak lu mu mënti yomb yomb yomb ak lu mu mënti xeewi. Mhm. <laughs> bu dee noonu lañ ko mën a waxee. waaw da ngay composé benn code rek nga dugg directement ci plateforme bi. aajewul jàng sax école bu la neexee. d'accord. donc loolu tey jii pour revenir un peu sur Linguère mhm. Digital Challenge moom la ñu Sonatel da koy organiser pour sargal jigéen ñi nga xamante ni dañuy yëngatu ci wàllum numérique ci mhm. wàllum digital boobu laa présenté woon ci concours bi ah ñoom ñu gis ne euh, projet bu am solo la. très bien et que mérité na ñu ñu ñu accompagner ko. très bien très merci bien. beaucoup très bien jërëjëf. Euh, euh, dañu lay féliciter maman bu baax féliciter Oumy mais bu ma jógee ci yow rek dama bëgg nga joxal ma yaayu Tidiane moomu micro bi. Dieynaba Kane Dieynaba dafa am loo xamante ne moom moo tax tey ñu lay woo yaayu Tidiane. waaw mu am fu mu tàmbalee. léegi loolu nekk beneen secteur mais toujours pour lëkkale jigéen ñi rek. Mm-hmm. ah lan moo indi nga xëy rek taxawal li nga xamante ne moom mooy Yaye Tidiane may ñu tuuti fàttali ñu lan moo tax ba sa euh, nga fippu. <laughs> mën nañ ko wax fippu <laughs> ah n'est-ce pas <laughs> Euh, kon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mhm. Euh, di la remercier ci invitation bi nga ma invité fii. ba pare di di leen souhaiter une bonne fête de la journée de la femme. Mhm. à toutes à toutes les femmes du Sénégal d'Afrique et de partout. Mhm. donc euh, yaayu Tidiane man maa yaayu Tidiane sama doom. mooy Tidiane dafa juddu feebar. am un syndrome polymalformatif. dafa am feebar bi nga xamante ne dafa laal organam yu bëri. mu am laago bi nga xamante ne dafa xaw a diis. léegi bu mu juddoo ma nekk ak moom hôpital. Mm-hmm. en pédiatrie soo fa nekkee yow du ñu wax sa tur turu malade bi la ñuy wax. Mm-hmm. léegi de ce fait infirmières yi. Mm-hmm. ak infirmiers yi suñ ma doon oo. yaayu tijaan la ciy wax parce que ñoom malade bi tijaan la ñu xam léegi puisque dama yàgg hôpital ak moom. <coughs> nekk naa ak moom foofu presque deux ans. Euh, ñëpp xamee ma ñaari at ñaari at. nga nekk ak sa malade. ci hôpital parce que parce que bu mu juddoo déjà au début ñu maa ngi woon ak moom hôpital Diourbel. waaw après ñu évacuer ñu Albert Royer ñu nekk mm-hmm. fa presque ay 6 7 mois. Mm-hmm. ñu évacuer ñu ORL. fa lañ ko defalee benn appareil. waaw bu ñu tuddee trachéotomie. waaw benn appareil bu ñuy def ci baat bi ci lay noyyee. léegi soin appareil boobu moo nécessité woon ñu toog ci biir. hôpital ngeen toog ci hôpital waaw ñu yàgg fa. Euh, te lu ma permettre ma génn mooy. dama jàng nu ñuy fajee appareil bi. waaw très bien mën a génn pour nga mën a génn waaw ma mën a génn dellu mhm. ci sama famille. puisque ah. am naa aussi yeneen doom yi nga xamante ne du tijaan. Mhm. très bien yaayu salala yaayu asu léegi nga <laughs> fépp li indi fépp bi man moo ma li indi fépp bi parce que. ñaari at yaa ngi ak malade bi ci hôpital. waaw waaw lan moo indi fépp bi. li ma nekk hôpital yëpp. Mhm. dama doon vivre lu metti mais man professeur de lettres la. muy bind. très bien li ma doon vivre yëpp su méttee ba métti parce que amuñu woon un soutien euh, comme ni ñu koy waxee un soutien psychologique. Mm -hmm. à plusieurs reprises annoncé nañ ma ne que sa doom du dudd plus d'un sa doom du dudd plus de deux ans. Mhm. macha allah léegi am na huit ans. am na huit ans macha allah léegi euh, li ma fa nekk dama doon bind. Mhm. lu may vivre yëpp di gis yeneen maladies di décédé. nekk pédiatrie nekk ci mm. saal urgence bu metti muy am ay décès yu bëri par jour et léegi su ma ko vivre mu metti ci man mm-hmm. sama maladie doom ak maladie yeneen xale yi ma doon vivre mm-hmm. ma koy bind waaw léegi dafa am benn groupe bu ma nekkoon période boobu ci Facebook groupe baa ngi tudd entre yaay entre yaay groupe bi nga xamante ni ay yaay kese ñoo fa nekk waaw une fois ñuy wax ci feebar xale yi ma ma expliquer ci sama histoire expliquer de que man dama am doom bu feebar. bu am laago bu diis il voit pas il parle mm-hmm. pas. Mm-hmm. il marche pas. Mm-hmm. léegi ma raconté ko après ma am idée wu li ma doon bind hôpital ma publier. publier ko mais bi ma koy publier publier wu ma ko ci tuuru Dieynaba. ma publier ko ci tuuru Yaay Tidiane parce que ça faisait plus de quatre ans tuuru ba déggatuma ko. turu madame woon déggatuma ko yaayu Tidiane laa doon dégg. comme tey soo demee hôpital soo nee yaayu Tidiane ñëpp a ma fa xam boutiquier bi infirmier bi taximaan yi ñëpp finalement ku ma gis ne ma andi tijaan yaayu tijaan andi tijaan donc mm. euh, loolu moo indi euh, yaayu tijaan bi ma mm. commencé publier texte yi ci Facebook ci groupe bi Euh, premier texte bu ma publier je me rappelle. maa ngi ko mm-hmm. publier woon ci benn euh, plateforme bu ñuy wax Medium. Medium waaw mais da am benn da ngay am benn bac benn benn kii benn retour. Mm-hmm. oui da ngay am benn retour bi nga xam ne lay wax statistique. yi nga xamante ni nit ñi visualiser nañ mmh. waaw j'ai vu que en uh-huh. deux jours ya uh-huh. y a eu beaucoup beaucoup de gens yi nga xamante ne cliqué nañ mmh. lire nañ texte bi ba pare ñëw di sympathiser ak man c'était le 1 8 mars en fait 8 mars la ñu lancé woon yaayu Tidiane bi léegi ñu bëri di ma bind naan ma dañ lay soutenir ci sa combat loo yaayu Tidiane nan nga soxla pour Tidiane même appareil bu mu yoroon bi beneen yaay moom ma ko offrir bu gën a mag. Mm. bu ñu ko waree mm. changer yaay bu nekk en Europe. très donc il eu beaucoup de de retombées yi nga xamante mm-hmm. ne. Mm-hmm. rien que le fait que mu publier texte yooyu ci Facebook. di raconter sama vie réelle. Mm-hmm. du fiction. li nga xamante ne dama ko vivre moom laa doon bind. le fait que ma ko ma raconter mu tax ba mu am ñu bëri ñu solidaire ak man. solidarité boobu ñu juddu spontanément. ay maman di ma envoyé même xaalis. di ma envoyé xaalis naan ma dañ lay dimbali pour sa feju doom. li nga xamante ne man mosuma ko woon xalaat mais aussi mu am yeneen maman. Mhm. yi nga xamante ne dañoo am ay doom yu feebar. parfaitement mais di ko nëbb. Mhm. parce que si suñu société. Mhm. lu ñu gën a gis mooy. Euh, beaucoup de mamans dañuy nekk ay yaayu tijaan mais duñu feeñu duñu wane seen bopp ba pare ils en parlent pas ñu wax duñ ci wax léegi nag le fait que ay yeneen maman ñëw mhm. di ma contacter euh, lu ñuy wax en inbox ci Facebook naan ma man tamit sama doom dafa am lii dafa def nii yeneen femme yi nga xamante ne am na benn femme handicapée la bind ma mu ne ma man sa histoire bi ma ko liiree sama yaay laa gis parce que man dama nekk handicapé mm-hmm. te li ngay vivre ak Tidiane sam yaay loolu mm-hmm. Mm-hmm. dund ak man donc mu nekk euh, li nga xamante ne bi ma gisee solidarité bi commencé na am nit ñi commencé di kii may publier di publier après ma am idée wu lancer une association très ki ma tuddee association bi association yaay Tidiane léegi association bi yaay waaw mu am ay moom ñu bëri yi nga xamante ne xaw ma leen comme disait Oumou Oumi xaw ma leen mosuma leen gis et pourtant dañoo dem ba nekk sama ay xarit yu baax ci biir Facebook. parce que man en fait Facebook moo gën a nekk réseau bi may utiliser. très bien très bien donc waaw donc euh, à travers ça d' autres moments ñëw. joindre à man. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu lancer association bi. di liggéey. merci Yaay Tidiane nañu dem seetaan élément bi nga xamante ne moom moo ko concerné. Mm-hmm. ñu daal di dellusiwaat si plateau bi. maa ngi na Dieynaba Kane waaye léegi. si turu yaayu tiijaan lañu ma gën a xamee Tidiane sama doom la Tidiane fu judduwaale feebar xeetu feebar yi nga xam ni daf lay soppi soppi sa nekkin xeetu feebar yi nga xam ni daf lay tuxuloo hôpital wax ci yombul ndax mettit bi dafa làkk fu sori dama bi ma amee grossesse Tidiane Euh, médecin bi waxoon na ma nekk dama amoon excédent liquide amniotique maanaam ndox ndox bu nekk ci biir bi moo doon développé wu par rapport à bébé bi parce que bébé bi dafa tuuti woon ndox mi bëri léegi ñoom médecin bi il m'avait expliqué que loolu su amee soit xale bi moo feebar wala man maa feebar mais bi Tidiane juddu mu jooy normal amul woon dara ce n'est au bout de ay 10 jours si la commencé di présenter ay problèmes respiratoires. médecin bi ko doon traité foofu docteur Alice léegi sama xarit la bu baax sax léegi docteur Alice daal di ñu envoyé Dantec pour consultation ñu egg si euh, gis professeur Raymond Diouf la ñu gisoon bu mu gisee Tidiane mu xool ko mu bindal ñu papier ne nañ ko yóbbu bloc en urgence instant boobu expliqué wuñ ma lu ñu koy defal ñu jël xale bi rek bu ko yóbbu bloc ma ne leen déedéet il faut ngeen expliquer ma. si lañ ma expliqué ne ma dañuy bënn pout bi def ci benn appareil mu ciy nooyee ak yooyu looloo koy sauver suñ ko defalul loolu du dund ma bàyyi ñu daal di koy defal trachéo bi période bu ñu nekk ci hôpital bi noonu yàgg fa lu ñu fa téye woon mooy pansement yi il fa que tout temps ñu koy chaque jour ñu koy defal pansement trachéo bi pansement bi euh, da ngay dindi canule bi raxas ko monté waat ko ci def ci ay changer compresse bi changer gis nga kii bi ni ñu ko defalee ci baat beeg yooyu léegi nag loolu moom ma fa téye woon en fait yàgg hôpital bi metti torop ma jàng nu ñuy defee pansement bi pour mun a génn bi ma génnee ñu fexee ñu am euh, aspirateur euh, di ko aspirer ci kër gi mais malgré tout euh, appareil bi pour kii la maanaam bunt la pour microbe yi di dugg xale bi nooyeewul ak bakkenam léegi day tax ba tout le temps day am infection feebaru tiijaan bi jàngat bi ma ci jëlee def na ba ma crée benn association ma crée association association bi ñu tuddee ko Yaayu Tidiane Yaayu Tidiane parce que nit ñi xamee nañ ma ci Yaayu Tidiane te ñëpp ñu ñëw adhéré ci association bi ngir soutenir ma mooy taxoon au départ ñu créer ko naissance su Tidiane ak feebaram changé na ci sama vie lu bëri avant Tidiane di juddu man par exemple sala su sojoon damay feebar dama naan dafa soj damay kii kër mais léegi damay relativiser je me dis lii du dara y a am na monde am na benn dundin bi nga xamante ne xaw ma ko woon te léegi xam naa ko xaw ma woon ne existé na xaw ma woon ne que am na ci hôpital benn salle bi nga xamante ne am na euh, ñaar fukki xale yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi tëdd te ñu ci ci ñaar fukki yooyu presque fukki yi mun naa wax duñu génn dañuy dañuy décédé wala yeneen fukk yu des yi suñu génnee dinañ yóbbaale ay ay séquelles dinañ yóbbaale ay laago ci seen feebar loolu mosuma ko woon xalaat ay chiffres la yi nga xamante ne xëy na mos naa ko jàng mortalité infantile en Afrique mos naa ko jàng mus naa ko mais mosuma ko woon vivre sama ay mbokk ak sama ay xarit léeg-léeg ñu jaaxle suñu ma gisee may ree wala may kaf dëgg la metti na waaye tiijaat borom bi moomu ko dénk ngir ma jaamu ko si man wóor na ma ni Tidiane lépp lu ma ko jox ci mbëggeel mu ngi koy yëg sama mbëggeel mooy garabam. ñu ngi lay féliciter di la encourager xam nañ ne fi mu toll nii seen association bi ñaata membre physique ak ñaata membre ci réseau yi. kii. Mhm. parce que récemment defoon nañ benn activité. mu nekk benn marathon bu ñu defoon. Mhm. pour mun a collecter ay fonds. Mhm. fonds yi déjà pour permettre euh, jëndal Tijaan ay prothèses aussi pour éventuellement yeneen xale. très bien yi nga xamante ne dañuy am urgence. très bien euh, après marathon bi on s'est retrouvé avec. plus d'une deux de trois cents membres. trois cents membres yi nga xamante ne ñëw nañ adhéré ci association bi. mais il y a beaucoup aussi de membres sympathisants. yi nga xamante ne ay yaayu tijaan yi nga xamante ne ay góor lañ. ils n'hésitent pas à dire man yaayu Tidiane la bien que ay góor lañ mais dañuy adhérer ci concept yaayu Tidiane. Mhm. bi nga xamante ne dafay représenter. Mhm. bépp yaay bépp parent bi nga xamante ne am na doom bu am feebar buy nécessité ay. hospitalisation yu yàgg wala buy nécessité mhm. ay appareil wala bi nga xamante ne am na laagu bi nga xamante ne da koy téye ci kër gi ba tax yaay ju koy accompagner du mun a génn di dem di liggéeyi wala leneen jërëjëf merci beaucoup madame Dabo dafa am loo xamante ne dañu ko wax fii jëmale ko ci xarala yi li ñu mën a may dooleel jigéen ñi est-ce que doole boobu dafa nekk loo xamante ne dañu waral tey rek lëkkaloo comme ni Oumy wax problème am na ñu lëkkaloo def benn mbir autorités yi dégg ñu réagir wala ñoom tamit ñoom ñu def seen initiative boo xamante ne dina leen mën a permettre ñoom ñu contribuer à leur façon mais dama bëggoon laaj rek ndax bu ñu koy def dafa nekk loo xam ne dafa war a nekk une chose ponctuelle léegi léegi xew na léegi ñu def ko bu nu paree ñu taxaw xaaraat leneen ñëw pour ñu mën a yëkkati yëkkatiwaat est-ce que pouvoir u réseau yooyu ak doole bi réseau yi am dafa nekk luy jigéen ñi war di continuer tout le temps mu bañ a nekk loo xam ne tey la suba ñu taxaw gannaaw suba ñu waat beneen waaw euh, jërëjëf ci laaj bi euh, maa ngi wax ni ñoom dañu wokk sama góom. ah atia mhm. parce que fi may liggéey mooy euh, ministère des postes et télécommunications. Mhm. ci direction bu ñuy wax direction de la promotion de l' économie numérique et du partenariat. maa ngi fii ak sama yeneen naataango maa ngi nuyu ñeneen yi nga xam ne ñoo des ci bureau bi ak sama directeur bi ak sama ministre bi man wàllu coopération ak partenariat lañ ma seddal foofu. Euh, donc euh, domaine bi dafa ëmb ay tawat yu bëri mm-hmm. ñi li ñoom umu umi nduur def lu am solo la mm-hmm. boobu benn fànn la euh, lii di ko si def mm-hmm. aussi lu am solo la te loolu c'est en permanence gis nga loolu amul taxaw parfaitement mu taw tawul dinañu soxla semence. Mhm. mu taw taw tawul dinañu soxla béy. Mhm. donc nit du tàggoo ak béy mukk. fu ñuy soxla lekk rek dinañu soxla béy. Mhm. pour nourrir nos familles pour nourrir euh, les les les pays. donc man xalaat naa ni xarala yu bees yi def ñu war a permettre ñu am solution ce kon appelle maintenant les solutions. solution yooyu yooyu ci startup lay joge maanaam startup mooy nga door pour màgg ci mm-hmm. anglais mm-hmm. to start and to go up nga door nga xalaat ni dinga nga màgg mm-hmm. nga commencé nga xalaat ni dinga door ci lu tuuti après nga nekk entreprise bu loolu tamit. Mhm. jigéen ñi ñu ngi siy yëngu bu baax a baax wala ñu ngi siy yëngu bu baax a baax. mun naa euh, citer soreetul par exemple Awa Kaba moo ko yor am na yeneen yeneen yeneen jigéen ñi. Mhm. moom euh, madame Diko si lu mu yor tamit lu am solo la. Mhm. mun nañu wax ni euh, ci question bi nga posé. du du rekk ay actions ponctuelles. mais c'est pour l'autonomisation des, des parce que lu ñu boolee fii tey. Mhm. suñu waxtaan bi suñu xolu waxtaan bi mooy naka la ñu war a def ba jigéen du xaar pour keneen ñëw fajal ko soxla. fajal donc man xalaat naa ni. Mhm. pour l'autonomisation des femmes. Mm numérique. li ñuy wax le numérique wala le digital en anglais def ci dugg bu baax a baax a baax très bien dañu lay remercier madame sar bu ñu waxee nag réseau yi damay bàyyi Fama Gaye Mbeng présidente de l'union pour le développement des femmes de Yoff ah développement Yoff euh, madame Mbeng mm-hmm. dafay jaar ci jigéen ñi lëkkaloo mais lëkkaloo bi yéen yéen a ci transformation mm-hmm. euh, produits locaux yi mm-hmm. n'est-ce di def céréales ak yeneen yenn xarala yu bees yi lan la leen indil ci liggéey bi ngeen di def waaw mm-hmm. ah, maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur a sa sant di rafetlu invitation bi bu baax madame Faye parce que danga nga ñu may opportunité mm-hmm. ñu participer ci journée internationale de la femme ñu siy sargal suñu moroomu jigéen ñi yëpp ñi mm-hmm. teew ak ñi toog dañu seetaan di si sargal suñuy yaay yi beral nuyoo nde suñu borom kër yi parce que comme li soxna si wax rek madame Sarr loo bëgg doon femme entrepreneur. Mhm. loo bëgg doon femme leader. Mhm. bu borom kër gi jàppul rek day metti kon ñu leen di sargal bu baax ci suñu 8 mars bi. di ñaan yàlla yokkal yokkal leen seen koom-koom. Mhm. Euh, bi ñu commencé ñun union pour le développement des femmes de Yoff c'était en 2012. te li ko sabab mooy comme li madame Kane wax ne bu njëkkoon ay mbootaay la woon dëgg la ay tontine suñu yaay lañ doon def di daje di natt di dem. ñun dag ñu ñëw am tranche boo xam ne ñu ngi ci dix-huit ans ba cinquante-cinq ñu ne nañ def autrement autrement bi mooy ñu fekk li suñu yaay yi doon def muy dajaloo bi mais ñu am lu luñ ci dolli valeur boo xam ne dañ ko ciy dolli muy ñu former jigéen ñi mm-hmm. ñu ñuy daje. ne nañ utal formation jigéen ñi bu ñu leen utalee formation ba pare ñu jàpp leen ba nga xam ne lañ leen formé dinañ ko mën a liggéey. c'est la ñu commencé en 2012 def micro jardinage. 2013 mhm. ñu ñëw savon eau de javel pommade de cheveux. 2014 ñu ñëw fruits et légumes avec l'ONFP. 2015 mhm. ñu ñëw céréales locales. 2016 mhm. bi ñu ngi envisager envisager woon nañ. kii defoon nañ euh, pâtisserie ak xale yële 2017 bi ñu ngi xaar benn formation avec l'ONFP pour produit de la mairie mais bi ñu ko defee ba pare céréale locale bi ak fruits légumes bi moo ëpp doole si la ñuy liggéey lu bari euh, te lu ñu seetlu woon bu njëkkoon bu ñu daan def produit ba pare dañuy am problème pour jaay dafa daan des wala duñu am kuñ ko jaay wala dañu koy saxal suñu mbokk yi wala suñu jëkkër yeeg suñu mbokk jëkkër pour ñu jënd par force te da daan xool aussi ñu jox leen benn exemple. boo doon yónni sa doom nekk jëndal ma couscous marocain day dugg ci benn bitig rek am ko ñu dëgg bu ñu ne la jëndal mbuusu cere da ngay wër ba sonn doo ko am. mais nag bi réseaux sociaux yi ñëwee ñu ubbi page Facebook yóbbu sa suñuy produit yëpp. macha mm-hmm. allah mm-hmm. ñu gis ne nit ñi ñu ngi ñuy commande. très nga xam ne suñu produit dootul taxaw. ñu ngi ñuy commande parce que suñu adresse mu ngi ci. Mm-hmm. suñu numéro téléphone mu ngi ci fa ñuy liggéey da ngay commande ñu ñu. ñu yónnee forceetu leen mbokk yi ñu jënd produit yi ngeen di waaw forceetuñu mbokk yi pour ñu jënd parce que réseau yi moo ñu ko mhm. permettre te aussi ñu ngi participer ci foire internationale yi mhm. di participer ci salon internationaux yi ak ah, yi nga xam ne aussi mooy am fii tamit à ci Sénégal mhm. foire bi passé dem nañ foiru Kaolack bi yooyu yëpp opportunité la boo xam ne réseaux sociaux yi moo ñu ko permettre parce que moo ñu may visibilité ba ñu xam suñu produit très bien jërëjëf madame Meng xam naa dinañu ñëwaat comme léegi euh, xarala yu bees yi. Mm. tax na ba force tu leen mbokk yi ñu jënd kii macha allah li leen di transformé <laughs> kooku tamit plus la benn positif boo xamante ne la. Mm. ñu xoolaat yeneen yi ci njaay mi am na nag trophée boo xamante ne. Euh, am ngeen ko. Mm-hmm. dinañ leen permettre ngeen mën a kii kiiwaat. Mm-hmm. mais est-ce que liggéey yi ak xarala yu bees yi moo indi trophée bi walla lan moo indi trophée bi. Euh, bala may jàll trophée bi effectivement liggéey ak xarala yu bees yi moo ko indi. parce que comme ni ma ne la dañuy liggéey ci internet bi si Facebook bi. si mhm. la ñu connecté woo. waaw ak suñu benn partenaire. Mhm. madame Guèye ma koy remercier à travers. Mhm. moom tamit dafa yor benn réseau. mu boole ma si réseau boobu nga xam ne fi la partenaires internationaux yi nekk. dugal ma si ñoom ñu jox ma invitation ne naa participer seen forum bu amoon. en 2014. ma dem delluwaat 2015 di xool la ñuy def. ñu ngi réunion bu ñuy réunion Paris dañ may envoyé mail bi man it ma répondre leen kon loolu dafa mel ni man maa ngi France di participer sa la ñuy def ba démb rek déggante nañu loolu moo ma permettre ma participer waat en 2016 ci seen forum bi l'organisation des femmes africaines de la diaspora bi ñu demee foofu pays africains yëpp ñu ngi fa woon Cameroun a fi woon Zaïre pays continent bi yëpp a ngi fa woon mm-hmm. mais ñoom dañuy xool femme bi nga xam ne moo gën a góorgóorlu ca at ma ñu ne kooku la ñuy jox trophée ba joxuñu ko ko mm. pour neexal ko xaalis déedéet dañ koy jox pour encourager ko gën ko accompagner mm. gën ko wan tamit yan mm. voies moyen la mën a jaar ba la muy koom-koom ba muy def mu ñu gën ko valoriser si cadre boobu la ñu ma joxe trophée bi kon ma koy déjee bépp femme bu nekk Sénégal parce que nag loolu seen mérite la kooku jar na beneen applaudissement <laughs> merci docteur Zeynab Kane yow juriste nga ci mbirum euh, àq ak yelleef ngay yëngatu nekk professeur de droit université Bambey ñu bëgg nga bala ñuy xuus parce que yéen da ngeen am organisation boo xam ne dafa am benn particularité bu ndaw bu ci nekk wante yàqalul ngeen génn au delà de li nga xamante ne moom mooy rek diine bi war leen boole est-ce que mën nga nu présenter seen structure bi. bala ñuy xuus. nga wax ñu docteur fi mu toll nii ci xarala yi ak àq ak yelleef lan ngeen mën a dooleel yéen ñi nga xam ne yéen ñiy liggéey ci àq ak yelleef lan ngeen mën a dooleel jigéen ñi nga xamante ne tey dañuy utiliser xarala yu bees yi pour mën a liggéey yokk seen koom-koom yokk seen seen situation voilà mhm. merci mhm. Nina jërëjëf ci invitation bi. Euh, suñu structure mi ngi tudd rassemblement islamique du Sénégal euh, mhm. président Ouray Thiam moo fi waroon teew tey maa ngi koy nuyu donc sama sœur Ouray moom moo jiite euh, action féminine u rassemblement islamique du Sénégal. muy structure boo xam ne naam ci diine lay yëngu mais dafa lëkkale ay ay jigéen yoo xamante ne obédience yu bari. mais particularité mooy surtout solidarité ak jàppale jigéen ñi. solidarité boobu c'est très important. Mm -hmm. donc wax nañu sànq numérique mais euh, positive la ñuy wax tey. mais je pense qu'il faut ñu wax fracture numérique. fracture numérique fracture numérique parce que ñun on travaille on appuie les femmes du monde rural. nga xam ni ñooñu euh, li li solo si sax bind ak liir mooy jafe-jafeñ bi. donc alphabétisation bi ci ay opération yi ñu tuddee bassine de solidarité mais aussi appuyer transformation produit yi ñuy mm. def. ñun amuñu expertise comme madame Guèye. mën nañu jël ñu am expertise yooyu nekk ci sunu biir structure ñu jàpp ci loolu di jàppale femmes yi mm-hmm. ba nga xamante ne ñoom tey li ñu mën a mën a jot euh, ci euh, koom-koom ak ci am-am dinañ ko jot Euh, ci wàllu question bi nga posé nag wàllu naka la ñuy jàppale jigéen ñi ci wàllu ci wàllu yoon euh, suñu kuréel gi euh, xëy na man dama juriste kese ci kuréel gi kuréel gi am na yeneen juriste yu yu mel ne man li ñu leen di gën a jàppale mooy wan leen yoon bi ku ne mhm. xam na ne structure yi day amee mais structure dafa war a am li ñuy wax reconnaissance mhm. juridique maanaam na nga amee këyit kon ni mel nee ni doomu aadama ni muy amee këyit structure yi am këyit am reconnaissance boo amee reconnaissance tey boo balaa ngay dem sax ci structure yi joxe xaalis dañuy ñu lay laaj sa récépissé donc naka loolu la ñuy wan nit ñi yoon bi mm-hmm. fan ngay dem ba am sa structure naka ngay def ba am lii mais tamit ku wax jigéen wax problème mu àq ak yelleef ku ne xam na ne violence faite aux femmes tey jafeñ-jafeñ la ci dëkk bi ku ne xam na ni tey jigéen ñi soxla nañu ku leen wan seen àq ak seen yelleef fu ñu leen gaañee naka la ñuy def ba am ko mais tam yee leen ci loolu mhm. naka la ñuy def ba mettit yooyu di dal seen kaw bu mu leen dal mhm. mais tamit delloo leen ci réseau tey booloo mooy doole mhm. message bi ñu yore c'est un message de de de, de solidarité booloo un message d'entraide ndax li ñuy wax lu benn nit mën ñaar ko ko dàq lu ñaar mën a ko ko ah. dàq c'est parce que on est dans l'ère du numérique mais réseau physique bi parce que bu ñu fàtte ne société africaine lañ ak traditionnelle tay mm-hmm. euh, ami virtuel neex na mais ami physique tamit neex na mm-hmm. naka la ñuy lëkkalee ñaari ba nga xam ne mm-hmm. virtuel bi du rey du rey physique bi parce que témoigner euh, nekk ci solidarité message boobu la femme rassemblement islamique bi Sénégal di dox euh, aussi ñuy encourager effectivement les femmes surtout en termes de solidarité à à travers aujourd'hui autonomisation bi ñuy wax parce que autonomisation bi du ko économique Afrique économique bi dimension bu importante la mais aujourd'hui il y a l'économisation l'autonomisation d'abord politique aussi waaw autonomisation tax femmes yi mën a am capacité intellectuelle boobu noonu ci xel yi ci capacitation boobu defe naa ne léegi ñëpp ngi def transformation baax na naka la ñuy amaatee beneen jéego mhm. bu raw transformation ñëpp ngi def tey appuyer lu mel noonu donc di invité réseau femmes ak yëpp ni leen mhm. euh, c'est vrai le courage on encourage le courage des femmes c'est qu'elles vite à aller au cœur des préoccupations au cœur des préoccupations mooy tey Adja Dieyna ba muy nekk Diourbel di jooy uh-huh. góomam am na kuy jooy Kolda la même chose am ku koy jooy Ziguinchor am na ku koy jooy feneen di saluer au passage suñu militantu Ziguinchor yi ah. nga xam ne ñoom tam ay jàmbaar ca ah, waar ba tey ñu ngi dem dans le profondeur mm-hmm. euh, dégg naa sànq wax madd ñoom ñoo ñu yónnee seen transformation madd yi ah mm-hmm. donc di ko di ko exporter un peu partout di mm-hmm. di jàppale jigéen ñi à la base loolu moom mooy le réseautage parce que réseautage bi day permettre ku nekk la ngay def nga mën ko wan sa morom sa morom wan ko moromam ñu boole moom mooy doole ci très bi xam naa ne am na ñeneen tamit ñu am doole fii. réseau des femmes du nord. ah très bien. jox joxal ma ko micro bi mu mu mu mu mu présenté wu. ah ñu ja ñu ñu ñu ñu laaj ko benn laaj rek maman parce que bu ñu waxee réseau xam nga femme du nord dafay jëlee ndar be fan ba Bakel ba Bakel léegi def boucle bi ba wàccaat nii mm-hmm. Sénégal jëm Sénégal oriental ah. léegi mm-hmm. euh, dañu leen bëgg a laaj réseau des femme du Nord yéen nan ngeen nan lan moo indi ngeen rassemblé wu boole mbir bi mu nekk réseau parce que souvent association la doon dégg GIE ak yeneen i mbir mais dafa mel ni léegi réseau yi foofu la doole bi nekk lu waral ngeen ngeen indi réseau. waaw mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur ñu leen di sant di leen gërëm ak di nuyu mbooleem jigéen bu fi nekk di ko sargal di nuyu mbooleem rek fu jigéen nekk. ndax ñun ñii ñooy ay jigéen. ñi ne fii ak ñi ne ci biti ñun ñëpp ay jigéen lañu kenn ku ci nekk boo xoolee sa bopp ci seetu bi rek war a gis sa morom. kon boog ñu ngi leen di sargal ci bis bi. ba mm-hmm. tabaarkalla macha allah eh, lii nga ma laaj sawar naa trop ci wax ci mm-hmm. ndax fa ñu tàmbalee da ngeen a wax waxi mbootaay. dëgg la waxi mbootaay boobu ngeen wax ñun sunu antenne. Mm-hmm. di antenne Rewbe daj eh, dental Rewbe Dajibe. loolu li mu tekki mooy. Uh-huh. mbooloo jigéen ñi nga xamante ni dañoo bokk booloo. waaw takku ba dëgër fas yéene liggéey. très bien. loolu la tekki. ci euh, li ma wax ci pulaar loolu la. tekki ci wolof la tekki ci wolof très bien. ñun. Uh-huh. dañoo xëy xëy. Uh-huh. xool ne ñun ci banlieue bi lañu nekk. te ñun surtout Pikine bi nga xamante ni foofu la ñu nekk. ñun daanaka dañ ñoo fàtte. dañu leen fàtte. fàtte fàtte boobu nga xamante ne dañ ko fàtte woon. ñu xëy xëy daal ne lii mënul continuer yëngu-yëngu yi nga xamante ni jigéen ñëpp a ngi ciy yëngu mu yëngal àddina bi kenn ku ci nekk boo xëyee gis kii mu ngi yenu paanam di jaayi jën kii mi ngi yenu leketam di di di wuti loo xamante ne ni dina defar même bu dee gerte caas sax mhm. mën cee am ñaar dërëm yoo xamante ni bu doom jooyee mu daal di ko koy jox mhm. ñun bi nañu jéem a booloo def loolu ñu xëy xëy daal di booloo def loolu di natt di natt di natt. ah kon ñu delluwaat ci mbootaay ya. waaw mhm. Mhm. ñuy nat ngeen di natt. ba nga xamante ni ñoo ngi nat mhm. bu ñu nattee ba pare. bu matee même bu fekkente nii sax cinquante mille lañu ñu dajale. ñu daal di koy séddale ña fa toog. daanaka ci séddale. waaw daanaka jëriñul dara. waaye bu fekkente nii séddale nañ ko. xool ni euh, euh, soxna si fay mën naa am junni. bu amee junni boobu dina jëndi gerte defal gerte jaaf. Ah, ah? kooku séeréer bi mën na def leneen sax. <laughs> dina defar gerte caaf. waaw kooku kay séeréer bi mën na cee am fukki dërëm ñu ah. daal di koy defee noonu. parfaitement yéen ñi nga xamante ne nii yéen a séddoo fukki junni. Mhm. bu ngeen delloosee euh, mois prochain ñi daal di koy jël joxaat ñeneen ñooñu itam daal di dem. ñu nekk ci lool nekk ci lool ba nga xamante ni moo si yàlla suñu borom bi nga xamante ni dara tëwu ko. Mhm. bunt bu tëju rek am na koo xamante ni moo yor caabi bi fas yéene koo ubbi. ubbi yàlla indil ñu soxna su baax. Mhm. ak ay mbokkam ay doomu ndeyam ay ndooram te àndandooram. tabaarkalla macha allah am na ci ñoo xamante nii ñu ngi fii toog ci saal bi. waaye am na ñoo xamante nii nekkuñu fi. waaye yaakaar naa ne bu ñu seetaani émission bi dinañ xam ne lii may wax. Mhm. lu ma tandu. mu indil ñu Marème Selli Kane très bien indil ñu Mounina Kane. Mhm. macha allah Marème Sow. Mhm. ak Atia Kane. ak Koura Sow. très ñii ñoo jiite réseau bi daanaka. Mhm. ak ñeneen ñoo xamante ñi xëy na euh, fàtte gën fenn. macha allah macha allah yàlla indil ñu leen ñu ñëw daal di ñun ñii kat dañoo bëgg a def dara waaye mënuñoo def dara te boolewu leen ñu ci euh, boolewuñu leen ci ndax ñene fële ñene dëkk ba ñooñu bu ñu jógee dëkk ba ñëw fii. ñun ñiñ fi fekk ñu ak ñoom ñëpp ñoo bokk jógeendoo benn bërëb dëkkandoo benn bërëb waaw ah, buñ ñu doon dàq Dakar ñu bokk yoon <laughs> waaw léegi nag ñu daal di léegi ñun ñu xool ba nga xamante ni ah. xam ne ñooñu lu ñu sonn sonn rek ñun itam ñu ngi sonn lu ko raw kon léegi naka lañuy def ba jàppale leen ñu ne leen des na ci yéen ñoom ñooñu ñooñu duggal ci loolu daal di former réseau boo xamante ni les femmes du Nord lañ ko tuddee mooy comme ni nga ko waxee nii léegi. ñun ñu daal di ñuy jël dugal ñu ci biir. xam ne sonn nañu trop macha allah sonn nañu trop. ñu daal di ñu ci dugal. ba ñu ci duggalee ñu jox ñu financement ñu commencé jël booleeg la ñu yore woon di ci liggéey. comme nag euh, fa ñu tàmbalee la. ak kenn ku ci nekk ba nga tàmbalee ñu jox la junni dangaa demal sa bopp dem am looy def. waaw am nañ ci ñuy jaay jën. waaw am nañ ci ñoo xamante ne taabalu ndugg lañ def. très am nañ ci ñuy cuub. Mhm. am nañ ci ñoo xamante ni dañuy togg di jaay am ci leneen ak leneen ak leneen macha allah macha allah mënumaa limandoo lépp wax dëgg yàlla bu dee wax dëgg rek. kon daal suqaliku am na. macha allah euh, koom-koom am na. macha allah yokkute am na. Mhm. kon mhm. day mérité applaudissement. macha allah <laughs> merci beaucoup. bu ñu jógee foofu dafa am beneen boo xam ne moom ci xarala lay yëngu xam nga jigéen buy jaay ndawal moom. Mm. ni ma koy wax toujours. wante dañuy wax boucher parce que xale yi seetaanu ndawal jigéen muy jaay ndawal kooku xam nga yàggul ñu ko di Sénégal xëy na dañ koy gis yeneen kii mais dañu koy bàyyi mm-hmm. Yaasin mu jël kàddu Yaasin yow dañu la xam si Yaas Xeer loolu mooy tur bi ñu xam ci internet bi ci Facebook bi ci ladies comme dañu laaj Oumy sànq ci ladies club nu mu sosoo ak fi ngeen dañu bëggoon rek cas concret parce que exemple nga nga toog fii nekkatul loo xam ne c'est virtuel yaa ngi toog nga expliquer nu nan nga duggee ci ladies ba lan moo waral nga mettre en place li nga xamante ne moom mooy activité yi ngay yëngatu ndax bëri nañu. merci beaucoup Dina ci invitation bi. je salue tout le monde ñëpp ñu ñuy seetaan. may fay damay sawar wax tey ci affaire li may yëngatu. Mm. ne xam naa ni wax nga ko sànq. waaw yaa seer lañ ma xamee woon. waaw ma jékki-jékki ñëw ci yaas boucherie. yaas boucherie. waaw acca boobu. <laughs> mu nekk nag loo xam ni dina jaaxal ñu bëri. ndax boucherie yi dañ ko xamee woon ci liggéeyu góor. waaw xamee wuñ ko woon ci liggéeyu jigéen. Mm. man damay doomu villageois. waa mën naa ko wax ndax bu boucherie bi. boucherie de la ferme de ceeb la tudd. ceeb fu mu ne bu sama bokk séeréer la benn ceeb du ceeb bi ñuy lekk. Ah, moo tax ma lay laaj kay fu mu ne xam nga nee naa la fu mu ne kon xam naa ne du lu ñuy lekk. ceeb nag mi ci région de Diourbel. Diourbel nekk ci gannaaw Lambaye. Ah, à 7 ah. kilomètres. nekk village bu ndaw. Mhm. sama papa juddoo fa. Mhm. sama maam fa la nekkoon. ñu ubbi fa ferme. Mhm. looloo waral tax ma jël tur bi. ceeb mettre ko en avant. waaw tuddee ko ferme bi. ndax defe naa ni léegi maa ngi yëngatu ci boucherie. waaw mu nekk métier bu ma passionné lu ma bëgg ndaxte du rekk amul boucher bu nekk femme mais li liggéey da koy def mu nekk loo xam ne da ko bëgg def ci ngay mën a amee rigueur bi war. Mhm. ak réussite bi ci bëgg am. ma nag am sama jëkkër mu jàppale ma bu baax. Mhm. ndax defe naa ni liggéey boobu li mu englobé moo rëy ba nga xam ni kenn rek. mënu ko def. samay famille nekk ci gannaaw ndax defe naa ni bu ma waxee ferme du benn du ñaari nit ñoo koy mhm. gérer. Mhm. rawatina nag affaire boucherie. affaire boucherie waaw. mu nekk une fierté pour moi ma bokk Ladies Club. Mhm. ndax dafa nekk réseau bi nga xam ni euh, li muy yëngatu dafa bëri. ñu jàppale jigéen ñi man ba may dugg Ladies Club euh, ba ma ci nekkee membre dama ne xaaral ma dugg rek wane li may def. ma dugg ci publier wane lu ñuy def découpe bi parce que tamit liggéeyu ba Bachir du ñëw rek daggate. defe naa ni dafa am yoon. Euh, li tax ñu woo la mooy xarala yi ak groupe bi nga xam ne les dix club la nekk dix huit mille membres. da nga ci bokk di wane li ngay def. Mhm. man loolu moo tax ma xam la gis sa liggéey. lan la la lay diis indil ak lan la xarala yi indi tey ba tey sa marchandise mi ngay jar wala déet. Mhm. est-ce que cliente yaa ngi ñëw ak réactivité bi nu mu demee. parce que vraiment dama bëgg nga dugg ci pratique bi cas pratique bi. Ladies Club. Uh-huh. li ma apporté tey jii mun ma ko sax wax matul pas longtemps ma publier parce que ba ma commencé boucherie bi yàggul mais tous les jours que Dieu fait macha allah dañuy ñëw présenté wu ne Ladies Club laa la gisee yaas ngay def lii ñu lay encouragé. Uh-huh. di ñëw un soutien bi nga xam ni que ñoom ñëpp a ci jàpp. dañuy ñëw di découvrir di jënd di ma boole génnee nit hmm. franchement Ladies Club moom euh, ca kaw ca kanam rek kon daal yow tamit yow forcé may leen ko loxo xam nga umi moom xam nga moom macha allah xarit waaw mais mag bu xarit mu mel nii da ngay am fierté jàkkaarloog moom mm-hmm. mais Yacine vraiment dañu lay remercier di la wax ne li ma doon wax sànq madame Mbengue forcé woo mbokk yi ndawal bi ah vraiment waa ladies ñu ngi koy jënd si ak ñeneen mm-hmm. donc vraiment groupe bi am na lu mu la apporté loo xam ne vraiment positif lu bari sax lu bari macha allah apporteel uh-huh. waaw lu bari lañ ma apporteel ndax li ma bëggoon terminer rek mm-hmm. mooy euh, initiative bi ñu am dañu jàppale jigéen ñi da daan am sa marchandise waaw ñu bëri bëgg a xam lii fan lañ ko mën a jëndee. Mhm. duñ ko xam mais Ladies Club tax na ni bon plan yëpp ko xam ñëpp a ko xam ah. léegi. loo am looy jaay nit ñi di ko wër boo ko ci publier nit ñoo lay woo sax di la gërëm naa la man xaw moon lii am na fi. donc loolu rek dafa nekk loo xam ni. Mhm. c'est à encourager. Mhm. di leen remercier jàppale bi ñu may jàppale bu baax sax. Mhm. gis naa lépp. ba ci ñeneen ñu nga xam ni que sax kenn xalaatul ne woon dinañ ñëw ci boucherie bi dañ ko gis foofu publication bi. ñëw ñëw ci boucherie bi. très bien très bien merci beaucoup merci Yacine ñu ngi lay remercier bu baax di la encourager di la féliciter. merci. madame euh, Sougou daf ma ne. madame lii moom tamit xam nga day réclamer santé bi. très bien lool dama ciy d'accord madame lii dañu wax politique xam nga yow li nga expliquer sànq wan nañu yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yëngatu ci politique mais dama buggoon laaj jigéen ñi ñu ngi leen di dajale ñuy def yii yëpp activités yi yëpp macha allah pour yokk yokk seen koom-koom mën a jàppale jaboot gi mën a jàppale. seen góor ñekk ci kër ga parce que nee nañu benn lam du kandang ñaari ñaari loxo ñooy takk sër ñooy takk tubéy donc jàppale bi dafay war mais dama la bëgg laaj jigéen ñi Sénégal tey dañu leen di gis ñoo xamante ne dañuy investir ci politik dugg ci nekk militante ñenn ñi ay femme leader la ñu yor ay ndombal tànk ci politik mais ñun foofu dañuy génnee négatif tuuti pour euh, mën a tëb seetlu nañ ne si ñun ne dafa mel ni jigéen ñi dañu leen di gën a utiliser pour ñu mën a yóbbu ñenn ñi ñu am ndombal tànk yéeg ñooy élire président de la république ñoom ñooy élire député yi ak ñoomin seen mais ñoom tamit ba léegi ñu ngi ci suuf ñu leen di faagagal ak di leen sonal donc à la limite yéenay fal buur yi te kenn toppatoo li wu leen kenn yëgu leen loolu dama bëggoon nga la nga wax ñu naka ngeen est-ce que da ngeen toll tey ci mën a créer réseau boo xamante ne bu dara amee loo xam ne day faagaagal seen taxawaay ngeen jug xeex ko seetul nag ma nekk parti bi wala ma nekk parti bële. fi may commencer. Mhm. muy lu am importance muy acte patriotisme ak citoyenneté bi ma fi gis. ci waa Ladies Club. ñooñu xam nga dafa jar ñu jaajëfal leen. au nom de l' état au nom du président de la république et au nom de toutes les femmes du monde. particulièrement du Sénégal. ñooñu dañu jar a jaajëfal. parce que nag réew doone li may lu ma réew mi di defal mais dangay wax li ma defal réew mi te li ma defal réew mi mooy action bi nga xam ne moom la Ladies Club def ci ne radiothérapie bi. ñu xam ne ñun ñëpp war nañ ci am kenn ku ne am nga ci malaat mm-hmm. ñoom ñu jël action bu mel nii def ko donc c'est à saluer ñu ngi leen ciy féliciter bu baax a baax a mm-hmm. Mm-hmm. beneen bi aussi ñu taxaw benn taxawaay boo xam ne rôle alerte la ak veille. te loolu nga xam ne tey niñ koy doxalee ni ñuy joxee exemple bi rek mooy. fi ñu njëkk ama importance mooy dañu gis femme boo xam ne tey xale. mu taxaw en tant que jeune. Mhm. taxaw ne dafay dundal agriculture. parce que réew nag du dem te agriculture demul. Mhm. fi nga xam ne aussi fa lay euh, jaax daaneele ci benn côté li nga wax léegi mooy dama defe ne nattu weesuwul nekk femme politique nattu weesuwul loolu. parce mais boo waxee nattu weesuwul loolu man damay bañ. <laughs> parce que tamit mun nañu nekk femme politique ba tey ñu lëkkaloo ba nga xamante ne du ñu amati président mais dañu am présidente. d'accord ñu ekkati leen vraiment. <laughs> vraiment non mais xam nga loolu tamit dafay nekk loo xamante ne ñun il faut que ñun tamit jigéen ñi. ñu xalaat ñu weesu rek suñu pour cent yi nga xam ne ñun. Sénégal moom la ñu am dëgg la ñu mun a ne ah. bu saawaay boo deful doucement ñun dañuy wuti suñu morom teg ko fi teg dëgg la dëgg la loolu moo tax ma indi laaj bi femme mm-hmm. politique yi tey mm-hmm. Mm-hmm. nu ngeen mën a lëkkaloo vraiment ba mën a pousse suñu benn mama wala koo xam ne macha allah dina mën a vraiment porté waxuñu combat femme yi rek. mais Sénégal yëpp ndax ñun li ñuy jooy bari na. dafa bëri ah, dëgg la te métit bi fu ne la. fu nekk la ah. effectivement loolu laa lay rejoindre. di la wax ne la dafa am loo xam ne su xasee taxaw. dootul nekk parti mhm. mais dafay nekk nit ki dafay nekk Sénégal man tey li may bokk bokk ci parti waaw dafay am jamono boo xam ne maa ngi nuyu sama mbokk yi dëkk pikin maa je mhm. suis dans le département de Pikine mhm. kon donc di la wax ne bu acte boo xam ne population bi ñoo ko soxla taxaw muy lu jaar yoon bokkatuma ci politique maa ngi ci citoyenneté bi su fekkee ne jamono yële ci ginnaaw yaa ngi fi dégg ay armeelu Pikine yaa ngi fi dégg ay lu ñu yoo xam ne xew na fa ay ñaawteef dëgg la da ngay dem ba benn moment nag waaw yow dootu ne da nga naan lii nag acte citoyen la kon dañuy liggéey pour citoyenneté parce que nag politique day jàll mhm. mais Pikine gi nga doon sénégalaise bi nga doon du day des ci loolu nag mhm. li ngeen waxoon léegi sànq rek muy autonomisation gis nga autonomisation dafa nekk ñu ngi ci level boo xam ne escalier la xëy na ñu ngi jëm premier jóge nañu rez-de-chaussée mais jigéen ñëpp te defe naa ne lu nekk ci man moo nekk ci yow gis nga man damay xalaat sax sama rêve fi may waxee yow su fi président Macky Sall pare ci deuxième mandat ba dem ki fi ñëw na doon jigéen ah, dañ koy ñun loolu dafa jar a tàccu de <laughs> su ah, ba na doon jigéen le plus rapidement <laughs> possible vraiment waaw léegi nag ci loolu mhm. man ak euh, ci loolu lay nekk ba nga xam ne mhm. góor ak jigéen sax bu ñuy xuloo ma faral jigéen gis nga su ma rombee di dem su góor dee jaay jigéen di jaay carte crédit yi ci booru bisis fu mu mën a doon dama xoolee góor xool jigéen ci jigéen lay jënd. <laughs> wallaahi discrimination positive. aw ma ci problème parce que damay xalaat ni kii li mu yor mi ngi ko jëmee ci kër ga. waaw te su ko indee ci kër ga góor gi bénéficié wu ci. la te moom li mu yor. du ko denc ci poosam di ko économiser day indi ci kër gi joxe ci njël li jënd ci mm-hmm. gaz yi def ci lépp kon donc ñun ànd bi ñu war a ànd mm-hmm. pour doon benn dooleel suñu bokk jigéen yi loolu loo ne bu ma doon buur def ko mi ngi ci xelu buur te ñun dañ ciy dañ ciy xalaat dañ ciy rêver dañuy xalaat ne ñun ëllëg réew mi jigéen war na ko mën a porter mm-hmm. ñu àndandoo ak ñoom léegi nag lii problème bi mooy Sénégal nag dañu am ay xalaat ay mentalité yu waroo parce que da nga ciy gis ñoo xam ne tey dañ naan la ba àddina tukki jigéen du jiiti ci réew mi euh. mais su ma leen laajee loolu pour lan dañuy wax ne jigéen moom toujours dafa war a nekk rek du bu newul ci ginnaaw it dafa war a laaj ndigal te boo doonee président de la république doo laaj ndigal léegi nag kon ñoom du ñu mën a comprendre loolu léegi nag kon mu doom nag benn liggéey boo xam ne dañ ci war a mhm. liggéey nag mhm. di ci waxtaan di ci dajaloo di seet naka la ñuy def pour jël jigéen ñi mhm. dooleel leen gën ñu xam ne tey place bi ñu am ci ci ci ci vie politique moom la ñu am ci fu ne parce que loo gis actuellement gis nga tey ji rek li nga fi ràññee façon jigéen ñi nga fi ràññee yëpp te kenn bokk ci ak sa moroom gis nga même tey ji li may am am possibilité di dem États-Unis que ñëw bi ma demee ba xam ne Hillary dafa war a falu rek daf ma jaral ma dem inscrire daf ma jaral ma dem voteel ko ah. daf ma jaral may sensibiliser nit ñi pour wane ni ñun jigéen ñi rek te loolu yëpp jubluwuma ci dara lu dul pour supporter jigéen ñi donc ñun toujours ñu ngi xalaat ni rek te booy seet lii ñoom Oumy Ndour def muy fundraising gi nga xam ne mhm. moom la américains yi di def mhm. te fundraising dafa war ci réew mais booy xool jigéen def ko muy ëpp ampleur jigéen def ko muy ëpp réussite mhm. jigéen def ko muy ëpp njëriñ que sa keneen def ko defuma nag discrimination parce que góor ñi ñooy suñuy kilifa waaye nag am na côté boo xam ne aussi je suis plutôt féministe très bien mhm. très bien merci mhm. beaucoup wax bi rafet na merci beaucoup Mina li ma bëggoon li ñu bëggoon xam naa waaw ci madame Sougou li mu wax waaw tuuti rek li ma ci bëgg a yokk moo di ne ñun suñu dëkk am nañ parité dëgg la waaye nag parité bi mu ngi yem ci ci mandat électif yi n'est-ce pas bu dee élection am na mm. góor benn jigéen benn mm. waaye li ñu seetlu mooy que par exemple suñu gouvernement amuñu jigéen ñu doy dëgg la ci quarante ministres ñu ngi toll ci sept jigéen dëgg la loolu nag da ngeen ciy wax ak président de la république mu dimbale ñu waaw donc plaidoyer la boo xam ne moom man ci sama bopp maa la koy maa la koy kaasal incha allah maa la koy xeexal xam nga xam nga bu mu ni na waxee de gouvernement bi rek dañuy duggaat feneen foo xam te dañuy dugg politique parce que assemblée tamit mi ngi fi te ñu ngi jëm ci élection législative ndax député yi nga xam ne tamit ñoom ñooy représentant du peuple mhm. ni ñu koy wax les députés du peuple mhm. dafa am ñoo xamante ne tamit liggéey boobu dañ ko war a def pour que jigéen ñi ñu gën a bëri ci ab assemblée nationale représentativité bi gën a yokk kooku tam nekk beneen jaago jéego boo xamante ne war nañ ko dox mhm. mais kooku dina laaj ñu toogaat mhm. ni ñu toogee nii pour gën koo <laughs> toj faram fàcce ko ndax ñu ngi jëm ci législative mais nii naa loolu aussi ma dagg la tuuti rek waaw pour wax la ne gis nga mhm. loolu jigéen ñi ci boppam ñoo am fulla bu toll ne waaw mayetuñ ko kenn ci liste paritaire yi nga xam ne tey fu teg góor teg fa jigéen daal Pikine yow mun nañu la séntu en attendant. comme <laughs> comme ah mun nañu la séntu. waaw loolu mën nga dem mën na dem su souhait. waaw ah. waaye nag comme tam. waaw toujours dañu nekk ci ronu kilifa rek. Ah. suñu kilifa mooy nga xam ne mooy décider lu ñu def fu mu ñu teg rek ñun dinañ liggéey foofu en tant que femme incha allah. gis nga li ñuy waxati mi ngi ñëw. <laughs> ñu indiwaat yeneen yoo xamante ne dañ si wax. sànq dañu wax financement. ak ni ñu tàmbalee woon euh, wax ci jigéen ñi nga xamante ne noonu lañ leen di jàppale. Mm-hmm. ñu am gan parce que tamit xam nga bu ñu waxee émission 8 mars fépp ci àddina bi dañuy fête 8 mars. ñu dalal Daniel Nekon moom euh, tubaab la bu dëkk Suisse mais day ñëw Sénégal depuis fukki at. Mm-hmm. di jàppale jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi. Mm-hmm. li Yacine doon wax sànq. Euh, euh, ak euh, docteur ne fracture bi dañu koy sentir diggante Dakar ak yi région yi donc on reçoit Daniel et c'est toujours vraiment un plaisir pour nous de rencontrer d'autres femmes qui aident et qui participent à l'autonomisation des femmes. Daniel, bienvenue. Votre nom d'artiste c'est Elena, mais en dehors du fait que vous soyez artiste, vous êtes fondatrice de l'association Allô la Terre et vous intervenez dans le cadre humanitaire. Vous aidez des groupements de femmes euh, dans le monde rural et à l'intérieur du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement pourquoi vous avez pris l'initiative de mettre en place cette, cette association et de financer uniquement les femmes qui sont à l'intérieur du Sénégal C'est surtout ma rencontre avec l'abbé Joseph, qui a influencé ça, qui, qui était dans la paroisse de Dioïne. Oui. Et il, m'a, il, m'a, il nous a longuement parlé quand il est venu en Suisse de, de la difficulté, de la précarité de ces femmes. Mm-hmm. Alors avec mon mari, on a décidé de les, de les aider Très bien. en leur allouant des microcrédits euh, sans remboursement. Donc c'est des microcrédits non remboursables. Non remboursables. Très oui. bien. Et vous avez pu financer combien de femmes À peu près un millier. Très bien. À hauteur de combien Est-ce qu'on peut connaître le... Bah, ça, disons qu'au départ, on leur donnait 400 000 francs pour un groupe. Par groupement Par groupement. Vous financiez les femmes à hauteur de 400 000 francs CFA oui. par groupement. Mm -hmm. Très bien. Puis après, on revenait euh, pour Ça dépend, des fois 200 000, des fois 400 000 aussi. Mm -hmm. Est-ce que vous avez remarqué ou euh, euh, l'évolution aujourd'hui, quand on parle d'autonomisation des femmes, quand vous les financez, vous avez remarqué que leurs activités ont, ont prospéré, qu'elles qu qu qu ont pu développer, qu'elles n'ont pas pu avoir de problème de financement après le premier que vous leur aviez, aviez octroyé Non, j'avoue qu'elles sont très courageuses et qu'elles travaillent très bien. Mm -hmm. Et ça a beaucoup amené de solidarité et d'entraide parmi elles. Mm. Okay. C'est ce qui m'a réjoui parce que j'ai quand même, je suis quand même allée euh, visiter quelques groupements. Oui. Même que je ne suis pas très très bien. Mm -hmm. Mais. Euh, et là... elles font quoi généralement quels sont les, les secteurs d'activité Alors, il y en a qui font de la teinture, oui. il y en a qui font euh, qui travaillent dans les céréales, il y en a qui font de l'agriculture, oui. euh, il y en a qui élèvent des, des animaux, des chèvres. Très des, bien. Qui sont des... dans l'élevage Oui. Mm -hmm. Il y en a un petit peu dans tous les domaines, mais euh, ce Très que j'ai remarqué, c'est qu'elles ont vraiment envie de s'en sortir et puis elles travaillent vraiment. Et elles se mettent aussi à elles à cotiser dans le groupe pour que ça avance plus vite. Très bien. Aujourd'hui, en quoi est-il important de mettre, parce que vous financez des femmes qui sont en groupement, en quoi est-il important aujourd'hui qu'elles soient en réseau Parce qu'elles sont en groupement, est-ce que vous projetez de les mettre en réseau On parlait tout tantôt de réseautage, mm -hmm. pour que l'impact puisse être beaucoup plus important qu'il ne l'est déjà. Oui, alors... Euh là, on voit toutes les, les associations. Oui. Et maintenant, on va les, les, ré, les réunir pour Très bien. Si celle-là fabrique ça, bah, celle-là peut acheter ou Très bien. Comme ça. Dans on va montrer les images de, de, de, du projet que vous avez mis en place. On vous remercie. On rappelle que vous êtes artiste-interprète et que vous avez un titre dédié à la femme. Merci Daniel Lecote. Je rappelle que votre nom d'artiste est Elénade. On vous remercie d'être venu partager avec nous l'expérience que, que vous le, le projet que avez mis en place. Vous financez des femmes à l'intérieur du Sénégal. Merci beaucoup et félicitations. Bon courage. Merci. Merci, merci beaucoup Daniel. Merci. Merci d'être venu. Merci. mu ne na dañuy wax sànq bi ñuy présenté ne liggéey bi dañu ko ànd lëkkaloo ak Debout Sénégal bi ñu koy présenté sànq. bu ñu waxee Debbo Sénégal nag day delloowaat rek ci ci ci jaam bi li muy wax. Mhm. mais Debbo Sénégal pour ñi xamul lan mooy euh, euh, Debbo Sénégal ak lu waral ngeen jël euh, site bi def ko site boo xam ne da ngeen ko jagleel jigéen ñi ba pare nekk tamit ci xarala yu bees yi parce que yéen du ngeen journal physique da ngeen nekk ci internet bi. Mm. très bien. merci Nina. Mm. Debbo Sénégal ni nga ko waxee site la waaw. site web la boo xam ne bii magazine la magasine pour les femmes li tax ñu taxawal ko moo di ne bu ñu duggaan ci internet bu ñuy wut dara ci jigéenu Sénégal li ñu doon jëkk tombeel mooy site de rencontre dajale góor ak jigéen wala séduction mhm. sénégalaise dafa joŋee dafa lii dafa laa te valeur sénégalaise mhm. ñun duñ ko xam donc ñu ne au lieu que ñuy toog yeneen bu ñu ñëwee ci dëkk bi tapé parce que léegi boo duggee ci dëkk balaa ngay def dara da ngay dugg ci internet pour xam ñi fa nekk ñooy ñan ku ñëw jógee bitim réew bëgg a xam femmes sénégalaises ñooy ñan bu ñu tombee ci ay sites de rencontre ay séduction yooyu ça fait pas sérieux loolu moo waral ñu ñu ñu commencé Debbo Sénégal donc Debbo Sénégal dafay wone jigéenu Sénégal mais aussi après jigéenu Afrique. ñu amee doole du ñu bëgg jigéenu africaine yi yëpp ñu wone leen. et de temps en temps d'ailleurs duñu def ay articles ci jigéenu africaine yi. mais focus bi vraiment ci jigéenu Sénégal. donc du ñu def ay rubriques yu bëri yoo xam ne non seulement. Mm-hmm. dafay wone day def ay portraits jigéen. waaw ñoo xam ne ñii depuis. Euh, euh, commencé nañu ci ci ci ci Linguère yi commencé nañu ci euh, ay ay. Euh, nu mu tuddoonati Aline Sitoé jaata ak ñoom ñëpp résistante yi ñoom voilà. ak femme de Nder ak femme de yooyu yëpp. Uh-huh. donc boo ubbee rubrique portrait di nga gis joon ñëpp. waaw ba yegg si ci première femme politicienne yi ñoom Adja Aram Diène ñoom uh-huh. Caroline Faye ñoo uh-huh. ñëpp nga xam ne. tey bu may wax ak samay doom bu ma leen tuddee xamuñu leen. xamuñu leen ma naan kooku mooy kan. et loolu. ay jigéen ñoo xam ne duñu xeex ba tey. ñoom madame Sougou mun toog fii. ñoom tamit di continuer seen liggéey. très loolu bu passé euh, ci débu Sénégal du ñuy wone aussi performance yu jigéen sportive yi dina mhm. dinañu wax euh, ñi nekk ci mode ñi nekk ci culture ñi nekk ci cuisine c'est-à-dire lépp loo xam ne mën na intéressé jigéen rek waaw dinañ ko mhm. def donc fii damay profiter mhm. jigéen ñi fi nekk pour wax leen ne site bi seen site la parce que du ñuy woote souvent jigéen ñi pour ñu ñëw participer ci Debo Sénégal joxe ay article bu ñu xamee aussi ay jigéen ñu am valeur ñu wax seen wax ñu wone ko du mhm. ñu ni ni ni ñu waxee ñoom madame euh, Sarr ni ñu waxee ne léegi bu ñu fàtte góor ñi aussi yan saa yi du ñu fàtte góor ñi du ñuy jékki-jékki ñu def par exemple euh, ay article ci histoire du Sénégal dëgg la mhm. ay nit ñu baax ñu fi nekkoon lu ñu defoon mhm. fekk ku góor la waaw yenn saa ñu def benn euh, article. Mhm. ci comme fi Oumy Ndour jóge keroog FESPACO. waaw gis nañ suñu frère. Alain Gomis li mu liggéey moo am kii. Mhm. gis mhm. nañu Ousmane William Mbaye Abdoulaye woon ñoo ñëpp duñ leen di dugal. pour que nit ñi aussi am information. dëgg la donc lool moo tax dem ba Sénégal taxaw. et buñ fi jógee defe naa ñi ñu fi rencontré aussi dinañ leen woo. tout à leen interviver dugal leen ci dem Sénégal. très am na benn article boo xam ne bii am na ay vues yu bëri. Mm-hmm. mooy yaayu tijaan yaayu tijaan bi ñu waxee waxam dugal kiyam ñu bëri duñu woo di naan mooy kan duñ ko mm-hmm. bugg a xam mm-hmm. yenn saa yi ñu dugal aussi euh, ku mel ni Rose Dieng waaw nga xam ne macha allah elle était formidable te ñu bëri xamuñu ko fi bon malheureusement gaañu na intellectuel bu ma la boo xam ne bii fii la nekkoon Sénégal ñoo ñëpp duñu ko duñu bëgg a fàttali en fait fàttali ba pare accompagner jigéen ñi fi nekk aussi tey ñu xam mhm. euh, que am nañ ay valeur yoo xam ne yi ay modèle lañu dëgg la man defe naa ne jigéen ñi euh, en tout cas suñu àddina tey mhm. jigéen ñoo gën a nekk modèle sax que suñu góor ñi ngeen baal ñu nag góor <laughs> kon kon loolu jeexal na jeexal na mhm. kàddu gi liñ ñu cëraloon si waxtu jeex na mais damay bàyyi rek ah madame Sarr ak euh, madam Sougou parce que bu ñuy wax kàddu pour euh, jeexal. boo doon jeexal ci kàddu yi lan mooy nekk kàddu yi ci li ñu wax yépp ñu tekk ci tënk bi. li génn mooy tey jigéen ñi war nañu wees. topp rek di jiital suñu suñu càmmiñ yi mm-hmm. ah, war nañu leen mën a ñun jigéen ñi tamit jàppale leen mm-hmm. ñu mën a nekk ci kaw mm-hmm. mën a tamit ah, briguer suffrage bi nekk président de la république il faut tamit ñu am ambition yooyu mais dafay laaj ci ginnaaw liggéey bi madame Sougou doon wax ñu def ko il y du travail à faire euh, man ci ñaari kaddu laay euh, laay tëj euh, première chose il y un jeu de construction et de déconstruction. déconstruction. Mm-hmm. c'est sociologique ça je pense que tout le monde le sait. Mm-hmm. am na tamit loo xamante ni njiit. Mm-hmm. faw nga indi lu uute ak li fi nekkoon. moom la ñuy wax leadership transformation. merci beaucoup merci Rofida Daba Sarr ñu ngi lay remercier kàddu bi rafet na. madame Sougou dañu lay bàyyi fu nu daaneeloon rek. ñun bëgg nañu vraiment mhm. xam nga yeen deuxième mandat ngeen bëgg mais ñun bëgg nañ le plus rapidement petit possible ñu am jigéen boo xam ne vraiment mhm. dina mën a joytu su suñuy suñuy naqar tout à fait mhm. mais sànq euh, naa yaa ngi doon wax léegi ci affaire financement waaw donc ila a fallu que ma am lu ma leeral lu ndaw lu ci am dëgg la ci pour wane ni président de la république fi mu teg jigéen dafa instruire ministre de la microfinance que je salue de passage wax ko ne ko jigéen ñi. Mhm. dañu bëgg amul national. waaw amul coloration politique. waaw nii apport. nii caution. waaw mu jàppale jigéen ñi. Mhm. loolu dafa dafa jar a te loolu yëpp 8 mars bi tey su ñëwee il faut ñu ñu remercier président de la république à sa sens mais di wax aussi ne jigéen ñi. Mhm. seen yéene yëpp. mooy ni nga ko waxee léegi autonomisation. parce que nag nit bu liibrul. xam nga dépendance toujours nga nekk ci dépendance mhm. dafay bari loo xam ne sa kàddu dañ koy tënk mhm. mais su la yàlla defee nag nga am benn autonomie bi mhm. nga xam ne tey di nga mën a demal sa bopp di nga xalaat ne ak réseau femmes yi nga xam ne réseautage bi nga xam ne tey benn jigéen toogatul nii naa su ma la nee maa ngi bokk ci réseau boo xam ne chaque mercredi damay joxe cinq cent francs mais cinq cent bi du doon liquide du doon xaalis mais damay jënd luy jar cinq cent chocolat bu ndaw bi jar 500 parce que bu ma mënee am 10 000 francs mhm. nii naa mënul am 10 000 francs ma bokk foofu au niveau de mon département mhm. dans ma dans mon quartier mhm. pour wan jigéen ñi ñun ñëpp ñoo yem dañuy toll foo xam ne nag amatul mbagg-mbagg dañuy tolloo la ñu ñëpp pour mën a ànd pour mën a li ñu xàccandoo ñu xàccandoo dóorandoo ko merci beaucoup ñu ngi lay remercier merci beaucoup merci beaucoup ñu ngi leen di gërëm di leen sant lii la leen Debo Sénégal ak 2STV indil ci 8 mars bi ñu am mbégte liggéey ko pour mën leen ko jox wan leen ko gërëm jigéen ñi ñëw ñëpp euh, teew si ngeen dégg li ñuy liggéey ak expérience bi nga xamante ne moom la ñu partagé ak ñun ñu leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter une bone fête du 8 mars di wax rek ne soññati encore ndax xam nga waxu si bi moom du jeex ndax euh, xeex bi léegi la war a gën a euh, tàmbali ñu leen di remercier bu baax di leen euh, jaajëfal di remercier Mariam Selikan mi nga xamante ne moom moo nekk day mbili lii yëpp nga xamante ne moom lañ ko moom la ñuy def tey teewe ko di remercier équipe bi ñu àndal yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ba mu mën a sotti ñu leen di jaajëfal di remercier femmes yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo jóge Yoff ñëw ànd ak madame Mbeng ah charmant public bi sol seen yére yu rafet yi mm-hmm. remercier ñëpp ñëpp ñëpp di leen remercier yéen ñi nga xam ne yéen a toog seen kanamu télé di ñu seetaan di leen jox dig daje beneen yoon di wax rek Connecting Women ni ko euh, Mariam Sely waxee merci encore une fois de nous avoir suivis et d'avoir choisi la 2STV au revoir et à très bientôt merci